wax te di leen ziar fu ngeen mën a nekk ci réew mi bitim réew di wétali ko 7TV télé bi ñu niru ba noppi duñu dajale ñëwaat nañu ci l'avant-première de la mi-journée la dernière incursion de la semaine nous sommes le vendredi 19 avril 2024 bonjour doyen Mamadou Sy Albert bonjour di nuyu waa kër gi di nuyu Birama aussi. <laughs> Birama Birama waaw ah, maa ngi koy nuyu bu baax <laughs> di nuyu aussi suñu invité yi. d' accord doyen Mamadou Sy Albert alors Adama Fall noo def. sant bu baax alhamdulilah di nuyu Birama. Mm. bàyyi ma njëkkee tey. waaw di ko wax ni na noppal bu baax na ci profité bu baax a mm. baax a baax. di nuyu doyen di ko ñaanal yàlla yàlla may bàyyi ko suñu kanam ay at yu bare bare bare bare may ko gudd fan ak wér bàyyi ko xam-xamam ak xel bu sell bi mu mun a accompagner saa su ne di la nuyu comme d'habitude di wax ni le verre te va très bien merci macha allah merci di nuyu suñu xarit Abdou Aziz balaa muy mel d'accord doyen euh, ma ne ko doyen sax Adama Fall mu ngi noonu euh, l'équipe est là suñuy gan tey dinañu dugg ci wàllum njàng bi fan yëpp ñu ngi koy wax ki ñu njëkk a dalal mooy ki nga xam ne moo di euh, monsieur Moustapha moom il est enseignant dinaa ci ñëwaat léegi ci li nga xam ne moo di ay qualification ak li nga xam ne moom mooy syndicaliste gi mu doon mais en attendant ñu nuyu la salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Maria ñu ngi lay nuyu suñu doyen. Mm. ici doyen Fall ak suñu camarade bi. Mm. monsieur Diouf. di ñaan borom moom na ñu def émission boo xam ne lépp day nekk njëriñ njëriñ ngir réew mi mais njëriñ aussi ngir euh, doomi réew mi incha allah. amiin amiin amiin jërëjëf ci wetu yi euh, Victor Sadio joof ñu ko fi daan gis ñu ko loon invité dans le cadre de la politique waaye nag tey moom day am beneen cadre boo xam dinañu ci dugg même dinañu wax ci politique bi parce qu'il est président du mouvement mais dañu koy nuyu bu baax a baax suñu frère la suñu xarit Victor Sadio Diouf ñu ngi lay nuyu. waaw merci euh, Cissé Maria maa ngi mhm. di nuyu aussi doyen. ak aussi Adama ak aussi suñu ko invité euh, Moustapha di nuyu aussi Sénégal yi ñuy seetaan yëpp mhm. na aussi waa Wakaam fi nga xam ne suñu commune fu ma dëkk di leen nuyu di nuyu mhm. aussi borom kilifa kër gi aussi di Maymuna jërëjëf euh, mu ngi noonu ki am na moo di Victor Sadio dina ñu ànd ak moom saa bu ñu xëyee dañoo am habitude di dem xool li nga xam ne moom la yéenekaay yi xëyee tey euh, xam naa ne fileeg ci kanam lay doon su fekkee c'est pas disponible parce que nag ñu ngi xaarandi bu fileeg ci kanam incha allah mais Euh, defe naa ne actualité bi même bu ñu xoolul tey la une des journaux bokk na ci tukki président Bassirou Diomaye Diakhar Faye foofee ca Mauritanie jóge na fa démb dem na fa démb jóge na fa démb mais mu ngi waajal dem fa nga xam ne moo di Gambie euh, bokk na itam ci li nga xam ne moo di le conseil des ministres de la dernière fois ba tey wax yaa ngi gën a gën a jëm kanam les rapports yi nga xam ne aussi génne nañ koy of nag ak yooyu c'est c'est à peu près ce qui fait à part les deux élèves qui se sont noyés fële ci gàddaay aussi lu jar a bàyyi xel la y a secteur de la santé euh, hôpital Fann bi nga xam ne dañu manqué des lits et autres pour les victimes d'AVC yooyu noonu yëpp doyen mu nekk actualité tey. waaw c'est vrai loolu mooy actualité dominante bi. Mm. président de la République Bassirou bon dem na Mauritanie. def na lu ko war. lu ko mm. war parce que aussi euh, ñun euh, ak Mauritanie euh, pratiquement. ces deux pays euh, ñoo bokk euh, histoire euh, ñoo bokk les intérêts. Mmh. bon histoire bu yàgg la depuis Senghor ba ba tey ji ñun ak Mauritanie jàmm la ñu mës a am. Mhm. bon même su fekkente amoon nañu conflit 89. Mhm. tey ji Sénégal du jaadu la que suñu président dem gis président Mauritanie waxtaan ak moom. surtout. Mhm. am na ay question euh, pétrole euh, gaz ñun ñoo ko bokk euh, accord yi amoon na président bu bees la dem waxtaan ak naataango am pour xool bon nag la ñuy fexe ba renforce coopération boobu. Mm. gën déggoo gën a xam am même démarche. je crois que loolu lu lu lu baax la aussi à part maintenant euh, pétrole gaz c'est la pêche aussi. que ñun ak Mauritanie la pêche nu lii. Mmh. La culture nu lii euh, on a les mêmes euh, les même peuples. Mhm. Euh, donc su renforcer coopération boobu lu ko war la léegi aussi buñ ci boolee président Mauritanie mooy président Union africaine. Mhm. te moom taxawal na ministère des affaires étrangères ak ministère de la de l'intégration. Mhm. baax na mu dem waxtaan ak président Union africaine pour wax ko moom naka la gisee. pour lu tax mu def ministère boobu lan la ci xaar. defe naa lu baax la plus aussi les problèmes de sécurité mm-hmm. ah, que ñun ak Mauritanie mm-hmm. les mêmes frontières la mm-hmm. là euh, Mali Burkina y des problèmes donc lu baax la ci suñu coopération Euh, que président Diomaye dem dem dem waxtaan ak euh, naataangoom bu Mauritanie. bon la Gambie c'est la même chose. la même chose ou même euh, bon la Gambie c'est à l'intérieur du Sénégal. donc c'est normal que ñun bu ñu xoolee lu yàggul. Sénégal moo taxawal quand même euh, euh, euh, taxaw na taxaw na taxawaay bu baax. ci mm. Gambie bi mu amee problème Djamena même avant problème Djamena donc ñun ak Gambie aussi c'est des relations très importantes. baax na mu mu dem foofu. Mm-hmm. je crois que diplomatie Sénégal daal war nañu gën a taxaw. Mm-hmm. Ah, c'est vrai que mu am dimension diplomatie politique mais surtout. lu ñu xaar ci suñu président ñun c'est une diplomatie économique et culturelle que que loolu c'est une chance que mu jiite état Sénégal c'est une chance que mu am Euh, euh la jeunesse je crois que am il a des atouts en tout cas pour pousser la coopération économique et culturelle euh, en, en Afrique et particulièrement avec les pays voisins mm -hmm. maintenant yeneen actualité comme tu l'as dit aussi c'est que bon on est dans une phase euh, gouvernement bi taxaw na les politiques oh, il y beaucoup d'annonces mm-hmm. mais surtout euh, les rapports les audits euh, mm -hmm. ça aussi ça crée euh, un climat un climat de tension hein. Ah, y a il y a une tension liée à que Sénégalais dañu bëgg xam euh, gouvernement wala pouvoir Macky Sall naka la gérer réew mi ban résultat la am loolu aussi lu jaadu la que ñu publier les rapports sénégalais xam président bi aussi mën a xam quel est l' état de la gestion du président Macky Sall mën a aussi dégager ses politiques bon hmm. parce que il a annoncé quand même beaucoup d' audits beaucoup de mesures euh, euh dans la, le, le, cette direction des affaires religieuses donc il y a beaucoup une batterie de mesures hmm. yu ñu jël def naa sénégalais ñu ngi coow ci mesures yi mais surtout aussi les urgences Bon, ce qui fait que euh, bon, toute l'actualité, en tout cas, tourne autour de lu ñu xaar ci gouvernement Ousmane Sonko. Mm-hmm. c'est c'est ça la grande préoccupation. Mm-hmm. lan la Ousmane Sonko nar a teg ci euh, loxo sénégalais yi en termes de, gestion des urgences en mm-hmm. termes de euh, transparence en termes de politique euh, publique je crois que loolu aussi bon c'est bien que mu nekk des débats. pour moi c'est c'est intéressant de période bi ñu nekk ni cest à Sénégal yi tooguñu rek di xaar président bi premier ministre ah, ah. dañuy déglu mais waxtaan mhm. le débat démocratique il se poursuit et je crois que euh, période bu ñu toll ni euh, président ak premier ministre war nañu bàyyi euh, nopp ci sénégalais yi mhm. commencé guñu il faut nga am une capacité d'écoute de l'opinion mhm. opinion mën na la dimbali même soo jëloon une mauvaise direction nga réajuster wala nga corriger je crois que de côté boobu daal. Mhm. il faut beaucoup beaucoup écouter les Sénégalais et aussi am démarche pour euh, pour gérer les urgences. d'accord ah mu bañ a nekk frustration dans un mois wala dans dans deux mois. Mhm. Euh, je crois que bon c'est les problèmes maintenant. Mm comme tu l'as dit aussi le. on attend beaucoup euh, le président sur les questions de l'éducation. Surtout. Ah, les, sur les questions de, du coût de la vie, le pouvoir d'achat. Mhm. Bon, euh, je crois que loolu moom baax na quand même. Premier ministre bàyyi xel ci ces urgences-là. Sénégalais yi nag bon. la déclaration de politique générale aussi parce que moom la nit ñi di xaar xam fan lañ jëm. ah oui non mais je pense que il faut que le le premier ministre quand même. bon gën a liggéey sur la politique général mhm. parce que lu ñuy dégg ba léegi euh, président def na discours à la nation président bind na administration bi premier ministre yi jël na ay mesures mais loolu yëpp ci annonce la mhm. lu mën a tenk dëgg-dëgg réew mi mooy déclaration de politique générale mhm. fal nañu suñu président suñu président wax na li mu fas yéene def mais léegi ku jiite gouvernement bi ñëpp moom la ñu xaar ak mm-hmm. moom moo war a xàll yoon mm-hmm. loolu déclaration de politique générale bi moo nar a xàll yoon je pense que euh, gouvernement bi man daal euh, ci li ma gis dañu war a bañ a yàkkamti ñun ñoo dul yàkkamti wala ñoom non ñoom waruñu yàkkamti mm-hmm. ñun yàkkamti nañu pression bi rëy na mais gouvernement du liggéey ci ci ci sensation wala tension gouvernement day liggéey li nga xam ne di wóor na ma ne que am na politique publique éducation mm-hmm. ma dem jàkkaarloo ak assemblée ne en terme éducation lii laa gis en terme de de l'eau lii laa gis en mm-hmm. terme économique lii laa gis nga am une orientation globale gis mm-hmm. nga tant que amoo orientation global boobu soo duggee ci coowu nit ñi tu perds le fil et je pense que ñoom war nañu am quand même euh, point d' ancrage politique général bi. Mhm. beneen point d' ancrage bi c' est les urgences. ok gis nga même urgence il faut qu'il travaille sur les priorités parce que tout est urgent chez nous. Mmh. mais soo amul les priorités par par les euh, parmi les urgences tu vas te perdre. Mhm. loolu mooy indi les errements. Mhm. wala tâtonnement tu fais douter les gens euh, la patience euh, de la pression sociale. gouvernement warul subir pression de l'opinion soo subiree pression de l'opinion rek euh, loolu mën na la jural bon. Euh, eh, yàkkamti waaw ba je je on prendra le cas des syndicats. Ouais. Ah, tous les syndicats sont aujourd'hui en phase euh, d'étude et d'écoute. Mm-hmm. ñun ñoom duñu yàkkamti xam nañu que ils attendent le gouvernement sur un point précis le respect des engagements pris. Mm-hmm. ça c' est un problème sérieux il faut que gouvernement bi réfléchir que avant syndicat yi di jóg ba mu anticiper. mu d' accord. Ah, je je crois que euh, côté boobu moom. les syndicats ci ci loolu lañ nekk ba tax ñu ñu def yenn kii loolu moom dinañ ci ñëwaat Adama euh, on nous dit que euh, la une des journaux est disponible la revue est disponible mais bon. Euh, on va essayer d'y aller mm-hmm. rapidement ñu dem ak waar régie rapidement ñu xool ko ça va nous permettre d'avoir yenn yenn euh, unité day de affaire parce que nous parle de foncier dans les journaux on parle de de la loi de l'OFNAC tout ça nañ dem xool du côté de la régie si c'est bon Ousseynou ñu dem xool la une des journaux ok on démarre par le quotidien Dakar accoste au nord Ah, l'URD qui quitte Benno, Guirassy au tableau gestion du secteur éducatif euh, nu ñu ko tuddee sax c'est c'est c'est Slovénie foofu la le ministre Giras si nekk. jamono ji waaw noonu lañ koy waxee c'est le nom en Slovénie c'est ça. <laughs> oui. donc on, le quotidien en parle donc moom côté boobu moom ñoom commencé nañ liggéey ah. <laughs> Nouakchott déroule le tapis rouge à Diomaye ok échec et mat du projet libéral. Mm, le forum civil qui plaide pour une renégociation. renégociation des c'est pour les contrats de pêche. ok bés bi le jour de l'eau a coulé sous le pont ok. <laughs> pont de l'unité Diomaye loue de larges convergences. de vue ay euh, Ghazouani ok l'OFNAC donne raison à Sonko Mamour Diallo dans de sales draps ça c'est le témoin ok à côté le parti socialiste toujours dans le témoin dañu delluwaat témoin le parti socialiste au bord de l'implosion ah bon un courant de gauche radicale en gestation Macky Casamance César Atoute Badiate a perdu le contrôle de la section de Kassoulay ngañ dem témoin euh, tribune Diomaye réclame à l'OFNAC des rapports déjà publiés mooy li kii doon wax fii démb Théodore hmm. les rapports ont été publiés Mansour Faye à côté le nouveau pouvoir piste les failles de Mansour Faye la mairie de Dakar qui demande apporte des précisions loolu moom bëgg naa ñu wax ci après parce que démb y a des vidéos qui ont circulé nit ñi dafa mel ni fi ñu nekkoon ci esprit bi ñu nekkoon loolu lañu nekk ba léegi ci manipulation y a une dame qui parle qui dit que oui y a Barthélémy Diaz mooy dindi waa Patte d'Oie na fi génn fi coow lu coow lu nar a bëri et les gens ont comme pas possible comme d'habitude Sénégal loolu moo ko moo koy taal partagé lu ñu lu ñu leen envoyé ñu partagé ko donc la mairie de Dakar qui qui dément l'info les assujettis défient la loi et l'OFNAC ok Débat européen sur le voyage du président en Mauritanie Sud Quotidien ñoom ñu ngi continuer ci seen rubrique quatre euh, hommes euh. en état aujourd'hui ils parlent d'Abdoulaye Wade donc ils ont parlé hier de Senghor je pense gouvernance et fin de règne de Macky Sall il <laughs> revient dessus Sonko euh, engage un vaste chantier mm. c'est redressement du service public lu garaaw lu lu lu nar a ngi noonu ñu dem les échos ah ok la notaire Aïssatou Gueye sévèrement condamné mhm. les États-Unis qui réclament l'extradition du présumé auteur de l'incendie du bus de Yarakh la défense qui refuse le département de l'intérieur s'appuie sur le climat favorable entre autres c'est bon jeex na merci jeex na kon foofu la ñu xaw a euh, cof tuuti ci kii ci ci li nga xam ne moo di la une des journaux c'est ce que je disais tout à l'heure ak doyen li doyen doon wax léegi c'est à peu près loolu moo def li nga xam ne moo di l'essentiel de l'actualité Adama Fall waaw on a on a constaté que ñu dugg ci njàng mi. rapidement on a constaté que la la presse est revenue sur euh, le voyage du président de la République ak yooyu. Mm-hmm. maintenant on a parlé am na benn organe bu wax ci le voyage du ministre de l'éducation nationale. Mhm. à Slowénie. Mhm. dès sa prise de cette de fonction man bon je vous salue mais su ma sañoon su ma sañoon beneen acte lay posé parce que doyen mi ngi doon wax naan il faut le respect des des accords signés moi j'avais j'avais a posé avec de service c'est de c'est de rencontrer le G7 le G7 en l'occurrence pour toog ak ñoom def l'état des sur les accords parce que mhm. dañ ko jox secteur boo xamante ni dafa bëri ay yëngu-yëngu. Mm-hmm. bëri ay ay mbir yu ci nekk. Mm-hmm. donc euh, jàpp naa ni li gën a urgent mooy toog ak syndicat yi waxtaan ceeg ñoom. Mm-hmm. xool par rapport ak euh, li nga xam ne moo fi nekk comme accord. Euh, naka la ñuy def bañ ko mun a defar en collaboration avec le ministère de la fonction publique et ak ak ñi nga xam ne ñoo ñooy en charge de la carrière des des des enseignants. mais bon il est allé la Slovénie mais nañu xaar ba am lu mu lu mu andi. par mhm. rapport à li nga xam ne dafa war a mën a jëmee kanam. Euh, ak lan ak lan moo ko fa yóbbu ak lan moo ko fa yóbbu. il faut peut-être le communiquer ouais. ce que mooy c'est ministre qui sort. Mhm. bon si c'est ministre. avec qui sort, des enseignants il y a des enseignants qui qui ñoo xam ne xam naa leen ce sont pas des politiciens. oui su nekkee su nekkee su nekkee congrès su nekkee congrès bi mooy bi ñuy def bi ñu daan def Genève cette fois ci dafa dem Slovénie je sais pas maintenant lu ci mënti am rek yow on attend son retour pour savoir est-ce que dina am intérêt euh, dina am impact sur sur le système éducatif bon loolu loolu lu ci am soxla parce que secteur boo xamante ne la bon bëri na yëngu-yëngu ah. ah y a des choses à parfaire yoo xamante ne war nañ ci mën a def mhm. surtout dans le cadre des des réformes mhm. sur le programme parce que dañ doon wax ni programme bi fii moom. waaw amuloon njëriñ ñu bëri ñu bëri parce que mm-hmm. dangay ngay jàng ba àgg fenn fii li nga doon jàng amulul la njëriñ. Mm-hmm. il faut il faut ñu xoolaat programme bi l'intégration de langues nationales dugg na mais c'est pas encore effectif carrément. Euh, voilà dañ ko gérer dugg na sax fi mu ne nii léegi dañ koy jàngal mais accès gul Dakar pourquoi accès gul Dakar nag mooy sam problème. pourquoi euh, expérimenter guñu ko avec les écoles privées aussi c'est c'est un problème maintenant peut-être les syndicats. Mm. Le syndicalistes qui est là nous édifier sur certaines questions là. Mm. Mm. parce que aussi dugal langue nationale dans le système éducatif yemale ko ci yenn ci ci ci à l'intérieur Sénégal. te andi woo ko à Dakar dugaloo ko expérimenté wu c'est bon c'est des c'est des qui sont là. Mm ay modification lu ministre ministère nouveau ministre de l'éducation nationale war a def pour mun a ñu gën dugal langue nationale yi ci ci suñu langue. Mm-hmm. parce que Cheikh Anta Diop moo doon wax naan mënoo développer sa réew sans sans sans tes langues. c'est pas possible. voilà donc euh, ñu xoolaat ci côté boobu. Mm-hmm. maintenant dans l'histoire des encombrements am na dem Grand am na c aussi ab Colobane suba la. non non non Colobane démb la démb si guddi dañ leen yëkkati. Colobane démb la mais j' gis naa benn vidéo le le préfet doon nettoyé. le préfet ñëw di informer ñi nga xam ni ñoo teg lal étal yi ne leen suba. mais dañ man sax ce que j'ai am na kenn ku ne informe ñu ngi leen topp boobu ba tey jox nañ leen sommation. voilà et puis et puis ça ça date pas d'aujourd'hui. c'est pas aujourd'hui. ngi commencé di wax nag parce que aussi désencombrement moom coow la mës a andi Sénégal. waaye mënut a ñàkk. parce que ils disent que mais suñu il hmm. faut ñu désencombrer nit ñi dem uti ay état yeneen wala état bi créer leen ay condition yi nga xam ne dinañ mën a def seen liggéey normalement. ñu dem liggéey normalement. alors mu ngi noonu enseignement supérieur dinañu ci ñëwaat léegi ak doyen Moustapha Sagnane suñu gan la secrétaire général syndicat des enseignants en langue arabe FC et membre du g ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax gis nga li nga xam ne moom la yéenekaay yi xëyee tey li ñu gën a ñor te doyen di ko wax léegi bokk na ci njàng meeg njàngale bi bu ñu demee ci éducation nationale dem ci enseignement supérieur dinañ dugg biir COUD ànd ci ak Victor parce que foofu moom naa fi ne nii yëngu yu bëri na foofu. <laughs> étudiant yaa ngi wax ñëpp a ngi wax euh, Sénégal. waaw jërëjëf Sista Maria. ñu ngi lay nuyu di nuyu. suñu hmm. euh, euh, bu baax a baax ci. Hmm. invitation bi. jërëjëf. Euh, léegi doyen dafa wax lu mu lu am solo ci wàllu éducation loo xam ne lu jar a bàyyi xel la comme nguur gu bees la ñu yor. Mm-hmm. te nguur gi aussi dafa am lu mu proposé woon wala boog lu mu jaayoon sénégalais yi euh, muy lu ñuy tuddee projet. Euh, projet boobu boo ko xoolee ci biir am na parti bu mag a mag a mag boo xam ne jox na ko éducation xëy na aussi dafa dañoo déglu ñoom xëy na sénégalais yi ba xam li ñu bëgg dëgg-dëgg. wax na ko léegi ci wàllu réforme bi nga xam ne war na am ci suñu curricula yi suñu programme bi nga xam ne moom la ñuy jàngale euh, ba ëllëg euh, ku ñuy jàngal xale bu ñu forme nga war a nekk benn citoyen boo xam ne réew moo dem taxaw boo taxaw acte boo posé dañuy xam ne kii sénégalais la dañ koy xam duñ ko xam rek ci ak colam wala ci comportement mais dañ koy xam aussi ci acte yi nga xam ne euh, daf koy posé mhm. dafay feeñ aussi ci jikkoom ci wàllu étique bi ak déontologie bi te ñun dañu bokk ci ñi gëm ne éthique ak déontologie boobu nga xam ne moom la ñuy woote. Euh, wax dëgg yàlla amul ci suñu curricula yi am amul suñu programme yi. Mm-hmm. Euh, programme yi nga xam ne moom lañ koy gis mooy ci secteur privé bi. Mm-hmm. Euh, parce que boo nee enseignement dafa am privé am. public mm-hmm. bu dee ci privé bi moom di nga fa gis loolu. boo demee ci privé catholique bi. loolu am na fa. xale bi bu génnee da ngay xam ne kii ci école bi la génnee am na lu ñu lu ñu def ci moom. am na aussi ci privé arabo islamique bi. xale bi bu génnee di nga xam ne kii am na lu ñu def ci moom. ñaar yooyu ma tudd dafa nekk ay exemple ci ñaari diine yoo xam ne moo am Sénégal mooy l'islam mooy christianisme mhm. ñaar yooyu école yi nga xam ne ñoom ñoo ko taxawal formé ko maanaam di ci formé ay xale ñoom ñi ñuy génne da gis si ñoom éthique da nga gis si ñoom déon da gis si ñoom déontologie mhm. bu baax a baax a baax kon dañoo jàpp ne pour nga taxawal benn système éducatif ba pare bëgg écarter diine loolu loolu njuumte la. Hmm. loo xam ne suñu suñu état yi dañ koy def. te loolu hmm. njuumte la boo xam ne lu jar a corriger la. Hmm. parce que ñiy def con contraire bi mooy privé catholique bi. ak privé arabo islamique bi ñoom wane nañu ay preuve yu yuy wane ne. mënoo jàngale ba pare bëgg a écarter diine ci biir njàngale. loolu benn la donc kon réforme yi nga xam ne ñun ñu ngi koy laaj ci biir ci biir système bi dañu bëggu si mu feeñ ci biir public bi. parce que ñaar ñee ma tudd ñi ngi ñi ngi jàngale curriculum bu public bi teg. mais nag ñoom ñu def ci loo xam ne euh, dañoo woo seen diine ne ko da war a contribuer bu ñu génnee hmm. mën naa joxe benn exemple suñu actuel président président Diomaye fay njàng moom la jàng moo tax bi mu ñëwee taxaw posé ay acte ñëpp dañu gis ne kii acte yi mu posé vraiment mosuñu ko gis fan la jànge école privée catholique mm-hmm. loolu ñooñu am na lu ñu def ci moom mm-hmm. mu jaar école publique sénégalaise mm-hmm. mais mu jaar aussi ci enseignement arabo islamique boo xam ne ñett yooyu njambaan nañu ci moom loo xam ne bi mu taxawee dañuy xam ne kii ab sénégalais la. Mhm. boo xam ne aada ak mbaaxu maamam joué nañ ci moom su su waxee dina feeñ ci moom bu posé ay acte dina feeñ ci moom bi muy nuyu euh, Aminata Mbengue Ndiaye loolu lu ko lu ko ay maamam jàngal la. Mhm. mbaaxu mbaaxu maamam la. diine aussi ah, moom joué na ci acte bi mu bi mu bi posé ak grand imam bu bu Dakar jour korité bi loolu loolu aussi. Euh, yaru maam joué na ci yaru mm. mbaaxu maam laa bëgg a wax joué na ci mm-hmm. yaru diine yi nga xam ne jaar na ci ñoom ñaar ba jàng fi aussi joué na ci kero donc li ma bëgg a wax mooy président bi wan nañu ne ndekete école sénégalaise buñ ko jëlee dans sa globalité ak li sénégalais yi gëm seen i ngëm-ngëm buñ ko daa ñu am ñu mel ne Bassirou Diomaye boobu. Mm-hmm. loolu aussi benn institution boo xam ne bëggoon naa ko def. Mm-hmm. kon moo tax ñun ñuy wootee ne suñu école bi vraiment nañ ko xoolaat euh, nañ ko jàngataat man dama am chance moom président moom actuel ministre de l'éducation bi muy def passation de service ak ak actuel ministre de l'enseignement supérieur bi ñuy def seen passation dañ ko dañ ko def ci benn place mm-hmm. parce que ki nga xam ne mu leen doon jox lenge yi dafa boole woon ñaar yi parce que moom gouvernement bi fi jógee weer wu mujj bi dafa boole éducation nationale ak enseignement supérieur jox ko benn ministre mm-hmm. le ministre Baldé Baldé bi muy def passation dafa def passation ak. Girassi euh, ak Girassi. def mhm. passation ak Abdourahmane Diouf ak Abdourahmane Diouf. Mhm. ma am chance dem fa ñu invité ñu fi ñun en tant que G7. waxtaan ne ma yow Sagnane yaay porté suñu parole. Mhm. devant les trois ministres. bi ñu porté parole bi ba pare ñoom bi ñuy tontu ñun bi ñuy porté parole bi dafa am benn point bu essentiel bu ñu ci boole mooy il faut ñu def révision wu suñu curricula yi. suñu programme bi il faut ñu def révision bi et puis. maanaam xam nga sax dañ naan rupture mais ñun li ñuy proposé mooy nañ ko jàngataat commencé ko ci racine bi. commencé ko ci préscolaire bi. ba université. lépp la ñu war a jàngataat. jàngataat ko intégré ci suñuy réalité. tout à fait suñuy ngëm-ngëm. parce que Sénégal ñetti ngëm-ngëm moo fi am l'islam la christianisme la ak mbaafu maam. Hmm. ñett yooyu am na lu ci nekk loo xam ne dañ ko soxla. Hmm. nañ ko jëli. def ko ay module former ci suñuy formateur mhm. former ci suñuy enseignant former ci suñuy inspecteur mhm. mu am module yoo xam ne day commencer préscolaire dem ba ba université mhm. nga xam ne danañu jàng façon xam-xam yépp mais aussi danañu bàyyi xel suñuy ngëm-ngëm dañuy ba bàyyi xel suñuy mbaax loolu benn la beneen bi mooy suñu làkk yi nañ ko dugal làkk yooyu ñuy dugal wax wax na ko léegi depuis euh, depuis ministre euh, Sëñ Mbaye Thiam commencé nañ ko dugal mais ba léegi dañoo nekk ci phase expérimentation ah, moo tax nga ne amul Dakar Dakar am na benn école boo xam ne mi ngi côté waagu ñaay bu ma juumul Liberté 6 voilà Liberté 6 ñoom ñi ba léegi ñi ngi ñi ngi expérimenté mais nag foofu dama gis ne aussi il faut ñu changer lan moo tax il faut ñu changer ñun loolu loolu bi ñu koy def ci biti la jógee maanaam programme boobu projet boobu ci biti la jógee ci biti ñoo financé ne dugal leen jàngaleem làkk yi expérimenté leen après léegi xam nga ki ko financé ci am na objectif ñun waruñu woon xaar ba benn ONG bu nekk ci biti wala beneen réew bu nekk ci biti dañuy wax ne jàngale leen seeni làkki réew ak seen financement ñoom yow dafa am loo xam ne dañ ko ci bëgg a dugal non am nañu seen programme bopp quoi nga bitim réew moom lu la jox ne indi ko rek ne ne la ko rek moom am na objectif moo xam wax na la ko mu leer moo xam wax ko mu leer mais am na ci objectif loolu benn la kon ñun wa waruñu woon xaar mu jóge bitim réew mais ñun suñu état suñu ministère suñu institution ñoo war a préparer loo xam ni dañ ci dañuy dugal njàngaleem suñuy làkk ci biir ci biir système bi. ñu bañ a xaar kenn ñu bañ a xaar kenn kooku beneen la. beneen bi mooy ci biir ci biir système bi am na lu ñu tuddee enseignement arabe. Mhm. foofu mu am benn euh, ñàkk compréhension boo xam ne li ëpp ci sénégal yi xamuñu ko parce que barki démb bi ñu créé moom direction boobu wax ne dañuy intégré waale les diplômés en en arabe am na benn débat bu mag boo xam ne indi na ko te mu gis naa ne moom jaru ko woon. lu tax jaru ko parce ni ñu déggee arab jàpp ne boo ne arab rek ne dina lislaam déedéet man def naa Liban Liban 48 pour cent wu libanais yi c'est des catholiques. Mhm. xam nañ dara mais mais mais ay arab lañ. 51 virgule moo fay musulman. Mhm. ñoom ñëpp ay arab lañ donc arabe bi du question. arabe rek ah. c'est langue. voilà arabe langue la rek. voilà Liban boobu ñoom pour ñu. bañ a am jafe-jafe seeni constitution seeni loi dañ ni suñu président de la république ak nu mu mën demee chrétien lay doon. Mhm. Liban mën mënta am président musulman. ah oui ñoom loolu la ñu d' accord loolu la ñu tënk pourtant catholique yi duñ fa majoritaire ka 48 virgule la. Mhm. le premier le premier ministre toujours day nekk un musulman sunnite le président de l' assemblée toujours day nekk un musulman chiite. Ah, mhm. et puis xam nga ñooñu. équilibre fexe nañu ba tënk seen réew ci tënkin woo xam ne. langue nekkatul problème ci ñoom parce que ñoom ñëpp ay la lañu donc kon dama bëgg wax ni araab bi làkk la woo xam ne dañ koy jëfandikoo pour jàng xam-xam. tey fii ci fay tey ci àdduna bi yëpp mathématique algèbre médecine képp ku ko jàng yaa ngi ko jàngee ci arabe. Avicenne Ibn Sina bi tubaab bi bëggee lëndëmal nit ñi daf ko dafa soppi tur bi daan na mais il s'appelle Ibn Sina kooku moo créé xam-xamu paj tubaab bi bi mu. bon loolu loolu histoire la xëy na du du lii mais bi tubaab bi demee ay téeréem la jël traduire ko en grec traduire ko en anglais traduire ko en français yóbbu ko seen université di ko jàngale mathématique bi ñuy jëf bi ñuy jëf bi ñuy jëfandikoo tey cosaan bu arabe la donc kon dama bëgg wax ne ne arabe bi làkk la woo xam ne dañ ciy jàngale ay xam-xam. médium d'enseignement la comme ni français nekkee ko comme ni anglais nekkee. léegi nag ñu Sénégal bi ñu optee ne dañuy dugal enseignement arabe ci suñu système éducatif ñu bari dañoo xamutoon lu ko waral pourtant ki ko dugal sax du musulman c'est le président Léopold Sédar Senghor moo dugal enseignement arabe ci suñu système éducatif depuis 1962 hmm. commencé ko ci collège ak lycée mu nekk LV2 mu nekk deuxième langue après français hmm. mu nekk ara mu nekk arabe après ñu intégré anglais e, e, ñu ñu intégré espagnol bi ñu demee lycée yooyu continuer ñu dugal russe dugal portugais. au au niveau du du secondaire. donc boo ñu dem ba après ñu soog indi ci élémentaire classique bi mu nekk arabe comme langue kese comme langue. ñu dawal dawal ba ay 2000 2001 président Wade moo dugal éducation religieuse bi ci biir élémentaire classique bi. et mu confier ko les enseignants en langue arabe ne yéen comme yéen a jàng arabe yéen a gën a mën a jëfandikoo arabe bi pour jàngale l'islam bi. église bi ñu convoqué leen benn benn daje la papa en 2002. ñoom ñu opté mënuñu am ñoom nombre ay enseignants éducation religieuse ci biir système cla classique bi ni na ci seen i école état ni leen appuyé. pour ñu jàngale pour ñoom aussi ñu mën a am ay enseignants yoo xam ne mm-hmm. ñooy jàngale wàllu éducation littératie ci seen école mm-hmm. donc loolu loolu mu nekk lu rafet loo xam ne euh, vraiment Sénégal war na ci jàngaat ñii ñëw bees war nañu jël loolu ñu ñu dépoussiérer ko teg ko ci taabal ji xool nag nan la ñuy fexee ba loolu jur ay sénégalais équilibre bi am. jur ay sénégalais yoo xam ne ëllëg daañu. dinaa ñëwaat ci yow léegi Moustapha Sagnane Victor Sadio Diouf président du mouvement MFA conseil technique au coude loolu moo tax tey ma ma ma gënoon a bëgg mu ñëw parce que. ñëw na fi ñu waxtaan dajeeg benn étudiant fii mais jour boobu euh, xëy na dugg ñu woon bu baax a baax ci li nga xam ne diggante bi changement am na étudiants yi ñu ngi doon casé parce que deux jours après daf ñu envoyé message euh, bi ñu ngi jàng et autres léegi nag euh, diggante boobu ak léegi Victor. fu ngeen toll. waaw merci Sister euh, Maria <laughs> balaa may ñëw si enseignement si si COUD ma wax d'abord aussi si la une des journaux comme ni ko ñëpp waxee mm. surtout si demu président de la République président Diomaye euh, Faye à Mauritanie mm-hmm. euh, effectivement man loolu dafa nekk lu ñuy rafetlu parce que le pourquoi day nekk rek dans une continuité boo xam ne ku xam Sénégal dernière année yi mm-hmm. géopolitique lu mu ci joué loolu ci am solo mm-hmm. xam nga ñu bëri daan nañ ko wax duñu xam dañu xëy rek gis sous-région yëpp tàkk nañ Sénégal am jàmm loolu les pays limitrophes am na lu ñu ciy joué loolu nag day fekk am leadership boo war a am. ba am ko pour yow nga mën a joué yow sa influence ni nga ko bëgg a joué. ñëpp xam nañu ne tey soo jëlee exemple le problème de la Casamance. suñ ko mënee réglé parce que président Macky Sall influence ba mu amoon ci président euh, nga jël aussi le problème du pétrole bi nga xam bokk nañ ko ak Mauritanie. au niveau pour aller plus loin. je donne l'exemple exemple nga xam ne ñu ngi koy waxtaane ñenn ñi euh, en réalité man yàlla may na ma euh, des fois may voyage pays pays bëri nekk si dans la sous-région am ñu am benn réseau bu ñu tuddee réseau de jeunesse politique en Afrique de l'Ouest hmm. man nekkoon coordonnateur bi euh, Afrique de l'Ouest dëkk yu bëri mais fekk naa séminaire yu bëri si yéen dina dëkk yoo xam nekkul sa Sénégal mais boo leen déggee ñuy wax da xam ne euh, leadership bi en Afrique de l'Ouest à un moment donné c'est à leur personne mais ko war a mën a maintenir hmm. boo gisee li mel ni le ko ñoom ivoirien naan yéen seen président moo bloqué l'écho parce que il attendait l'arrivée du pétrole sénégalais que la balance commerciale du Sénégal soit euh, excédentaire pour ñu ci mën te def te mi loolu noonu dafa nar am exemple suñu yu mel noonu suñu koy def ci wàllu monnaie mën nga dem am yeneen dëkk yoo xamante ne tey exemple tolloowuñu doole le Sénégal war na mën a supporter yeneen dëkk mm-hmm. yooyu yëpp da ci am affaire de soldat affaire de géopolitique mm-hmm. moo tax kon loolu noonu géopolitique dafa war a di continuer moo tax kon loolu dañ koy rafet parce que dañ jàpp li ma euh, doon wax démb waruñu mën a changer discours bu fekkee ci lu baax la mm-hmm. moo tax genre émission yi neex ma du nekk émission yoo xamante ay parpar nekk loo xam ne nit ñi xam-xam lañ ciy waxtaan pour njëriñu réew mi ñu war ko doxee mm-hmm. gis naa ne aussi ngeen waxtaan euh, si la la une des des journaux effectivement wax nañ ci lu bëri ci wàllu santé ak éducation. Mm-hmm. loolu aussi ñu bëri ñu ngi ci interpellé président parce que ba fii discours de la nation bu mu wax waxu bëri. muy au ñu ko. mais pour xootu ci xootu ci lu bëri. Ah. n'empêche man man j'ai lu le projet le projet quand mhm. xam naa lu bëri wax na ci xëy na su ma signé ci santé bi dinañ ci dugg. ndax si éducation bi xëy na ñu ngi koy xaar aussi si déclaration de politique générale euh, bu président bu PM Ousmane Sonko war a def. Mhm. dinañ ko fa xaar. beneen bi nga ñëw ci li nga wax ci wàllu éducation ci manière globale ma wax si balaa ma siy dugg rek ci wàllu université parce que lépp ñu ñëpp benn lañ. Mhm. éducation moom enseignement supérieur yëpp yëpp yëpp. benn ñëpp ñoo bokk mhm. nañ ci lu bëri parce que yow yàgg nañ ci depuis étudiant ba léegi si lañ nekk mais ma si jëlaat aussi moo di ma dañ nekk dëkk boo xamante ne dañ seetlu chaque fois régime bu bees bu ñëwee rek syndicats yi dañuy jóg Mm-hmm. syndicat dañu jóg Abidjan Côte d'Ivoire bu ñu ci sonnee président Ouattara dernièrement bu bu ñu ko réglé nu mu ko réglé parce que Sénégal boo seetloo le président Macky Sall a beaucoup fait ces dernières années ci wàllu yokko yi. Mm-hmm. mais malheureusement ni defee du ko encadré boo seetloo Ouattara bu muy accepté pour les syndicats pour nangu yokkal leen seen salaire yi tout ça dañ signé benn clause boo xamante dañu signé benn pacte. Mm-hmm. ñu ne oui on va augmenter les salaires lii ak lii mais condition yi la ko état mën a nangu amatul kenn ku ci mën a ñëwaat en arrière di indal beneen doléance mhm. man côté boobu laay woo l'état du Sénégal cette phase ñu wut un parce que mën nañu aussi chaque fois boo yokkee tey dans deux ans yëf yi jógaat problème yi jógaat day day indi déséquilibre mhm. liggéey bi nga liggéeyoon lu bëri mu koy yàq mhm. ci ci ñun ci wàllu université yi wàllu njàng bi ci moyen ak euh, secondaire côté yëpp ma ñëw ci wàllu université wax nga ko fi euh, effectivement li ma waxoon keroog rek nee naa université moom yàlla xam na ne li may wax chaque jour su ma ciy wax souvent je l'ai toujours dit li may wax ne du ma ci waxee waxu politique. Mhm. parce que en tant que technique du COUD li may wax chaque jour j'ai été loyal directeur yi fi nekkee yëpp. ku fi te ñëw aussi noonu laay continuer. Mhm. mooy li nga xamante ne jàpp nga ne bu ñu la nee conseiller technique boo ko waxee yéen a jàpp li nga xam boo ko defee. kër gi naan noonu fi nga far tey ku ma déglu li nga xam ne même raisonnement boobu laa yor. Mhm. man j'ai toujours dit aux étudiants ñun fa lañ nekkoon yàlla may ñu aussi suñu jaar-jaar suñu cursus étudiants yi fi ñu mën a jaar rek yàlla may suñu kër suñu jaar nañu foofu. Hmm. man je le dis souvent j'ai été délégué depuis la première année. Hmm. waxuma sax délégué depuis même euh, au niveau du bac. j'ai été le président du lycée Maurice Delafosse pendant hmm. nekk délégué depuis première année. kon xam kooku doo xeex intérêt étudiant. nga ñëw si côté mouvement politique j'ai été responsable national aussi du mouvement étudiant euh, à l'époque on était au MEL naa lu ko yëngal ak ko def mais nag jamono buy dox dafa am yoo xam foog nit ñi nangu ko nga fu fi yëf yi jógee je dis souvent aux étudiants ma ne leen nekkatul ne su ma jëlee au temps de années ou pour se faire entendre il fallait nga taal bus pour mu dugg université pour nit ñi xam ne lii la revendication qu'on doit compter dans ces mêmes méthodes. Mm-hmm. parce que tey leen am nañu tey combien de médias les sites internet les réseaux sociaux loo bëgg en l'instant tey adduna bi ñëpp xam ne lii nga bëgg. loolu aussi nit da ngay méngoo ak loolu. bu ñëwee fii ak problème Covid mm-hmm. nga ñu wax ne enseignement à distance. Mm-hmm. Euh, ñeneen ñi ne non parce que dañu bañ tout ça. baraake ñu jéem a parce que adduna mooy dox tey suñu étudiants ñoo fiy jóge dem partout dans le monde te partout dans le monde mm-hmm. te loolu aussi ma ñëw ci wàllu université effectivement comme ni nga ko waxee l'université li fi xew les événements du mois de juin depuis mars mm-hmm. du ay tëj pour simple lu ñu neex du loo xamante dafa lu neex état bi tout simplement tey am na résultat am ñu ngi ko am boo leen sotloo les étudiants indi nañ lu ñu l'aroma genre sous forme de carte coude la. Mhm. ça nous permet d'identifier ceux qui sont étudiants et ceux maanaam loolu da lay permettre ku nekkul étudiant doo mën a dugg si université bi tey ci enrôlement boobu noonu tey euh, avantage yi ci ne dafa nar a bëri xam nga dama la ko je donne exemple budget du coût. Mhm. li gën a bëri mu ngi dem ci la restauration ak le médical la restauration ancien carte yi doon am ñi daan dugg université. par jour da ngay gis tey exemple euh, restaurant dañu def ay milliers milliers de restaurants te ñëpp xam nañu ne c'est c'est subventionné par l'État. Mhm. du cent cinquante francs du cent francs sax léegi la cent francs bu étudiant bi di joxe du État loolu lay fay repreneur bi du cinquante francs bu ñuy jëndee ndékki di loolu la État loo xam ne chaque fois day dem ba ay mille neuf cent ay moins de deux mille des fois loolu foog État jël ci ay matuwaay. Mhm. léegi bu mais le boo duggee trois fois. <laughs> fu étudiant bi fu kudd waroon def en exemple dix mille repas supposons nga def trente mille pour xoolal loolu le surplus soo ko multiplier fa mille neuf cent deux mille wala deux mille combien de milliards la. nga ñëw niveau médical dans tous les niveaux comme ça. léegi ñu ne foog ñu xool ay jumtuwaay yu bees yi tax muy côté sécuritaire côté yooyu yëpp ñu def ci ay économie. Mhm. même ci rang yi da doon joué waat encore. Mhm, mhm. léegi ren am na lu léegi yëpp dañ ko def numérique. ok numérique numérique boobu mooy lan am ñu ngi si nekk en partenariat ak Synopsys boo xam ne filière la CDC c'est au niveau de l'État aussi ak euh, waa KPay euh, KPay KPay benn système boo xamante comme hmm. Orange Money Wave ñu liggéeyee liggéey boobu dañu permettre ren pour restaurant yi pour nga dugal yi sa carte benn carte ngay am carte boobu boo ñëwee pour dugg sur les restaurants moom ngay présenter carte bi dootoo am temps ñëw ñuy vérifier di jox ticket di la jox ay ticket yi léegi boo ñëwee cent francs bi si si système KPay bi si la ñuy récupérer euh, da ngay am système booy booy booy chargé sa carte. muy orange mu ne muy wéef ak yeneen yeneen système léegi nag soo ñëwee si si carte si buntu restaurant bi da ngay présenter sa carte nga dugg. mais soo présenté sa carte nga dugg si biir noonu carte bi na xam ne comme par magnétique na nga xam ne dugg nga si biir restaurant bi tey day am ay heure comme tey euh, bu nekkee période añ dafa am euh, temps ñu ne exemple 11h ba 14h léegi yow si même carte boobu fii ba tey ba 5 heures de temps au minimum par exemple doo mën a dugal. mënoo dugal ok euh, ah, ok euh, ça fait de l'économie waaw. ça permet à au coude. Mm-hmm. tey d'assainir le système kenn dootu ci mën a dugal deux fois. leneen li muy indiwaat ñi nga daan jël da nga daan gis université ñun ñëpp ñu bëri def nañ ko fa dans le passé da nga daan jël sa xarit bi nekk dans les écoles de formation dans les écoles privées képp ku jàngul ma xam ñun depuis lycée sax lañ daan dem lekk université <laughs> léegi loolu yëpp def nga ko def nga ko def nga ko carte bi day permettre benn nit bi dootoo ko mën a jël joxe ko say morom joxe ko ñeneen ñi bëri te du tere heure bu jeexee di ko mën a chargé application la rek comme ni ñu defee application orange money a xam naka la ñuy dugg a def ba jënd bu jeexee na nga gagné temps gagné xaalis voilà di nga gagné temps sur les que yi nga euh, a gaaw que da nga daan ñëw ñu vérifier xool ndax yow loolu yëpp day gën a gaaw nga jëlaat beneen niveau tey au niveau de la sécurité n'importe qui moo daan dugg université. moo tax problème yi xew bu am ku ne naan du man du man loolu yëpp nag il fallait ñu ñu jël ay mesures yu mel noonu. moo taxoon ma la aussi defaraat aussi for système boobu li ma la noonu dématérialisation des accès. nga xamante ne képp ku nekkatul dans le système. doo mën a dugg. léegi c'est réglé. waaw loolu ci loolu liggéey nañ ci lu am solo année yi passé mm-hmm. tout aussi en collaboration avec les étudiants ces derniers mois ba yàlla euh, am yaakaar ne euh, nguur gu bees gii di ñëw dina ko gën a mën a jongal ba yëfi mat. ba ñu am dans les universités modernes li xew dans toutes les universités du monde mhm. nga xamante ne étudiants yi dañ mën a jàng si jàmm violence bi fa amoon wàññeeku mhm. problème xeex yi fa amoon yëf yi daal ñu gën ko assainir ñi nga xamante ne état dinañ fa orienté dans public pour ñu dem jàng mën a jàng daan de conditions normales man a demaat loolu daal nekk na si jumtuwaay yoo xamante ne campus social ubbiwaat na waaw campus social tijjiwaat na même bi avant même les élections waaw li may wax chaque jour rek euh, amuñu benn intérêt tëj ko pour tëj ko parce que mais il y avait de choses à prendre yoo xam ne foog ñu def ko je donne mm. ma ma expliqué sànq pour ñu jël ko. mais tey après dinañ ñëw fay ma xaalis dinañ ñëw fay koy kaas. yaa ngi leen yaa ngi bu ñuy def réunion ak étudiants am na si benn étudiant bu wax ne mais yéen lan ngeen ñuy fay ñun étudiants duñ ciy am parce que plus de 100000 étudiants bu ñuy utiliser seen yëf Sénégal àdduna bi dañ ko xam mais xam nga xool ñun euh, la mission du service public. Mm-hmm. Mm-hmm. tey utilité bu mu nar a amal le Sénégal bu mu nar a amal nit ñi. loolu lañ ci xool bu ñu koy jël par appel d'offre la jaf mu jaar foofu mu war a jaar ba ñu mën ko jël. pour wax la léegi li mel noonu te appel d'offre kay ku ñu jëlul am nga droit nga def encore nga def recours. Mm-hmm. mais loolu yëpp tey ñi ko ñeneen ñi xamul étudiants loolu yëpp il fallait prendre du temps te maanaam léegi l'étudiant moom li yëpp du ko du moom du ko préoccupé xam nga étudiant mooy kan bu duggee ci restaurant bi léegi gis coow am ñu toj kaas yi kaas yi ñu di toogee suba bu ñëwaatee xëy yoonam nekkul ci kaas bi naka lañ ko war a jëndee fa la ñu war mën a jaaree moom xam na la xam ah, na na kaas amaat te or que yow mi nga xamante ne xam nga ne loolu pour nga mën ko amaat mënoo tëb rek kuy gérer yëfu bien public dafa laaj ay conditions te gis nañu malversation bana parce que dinañ ci ñëw après dans l' émission li xew les années passées à l'université ñun exemple ku fa ñëw exemple bon dernier directeur bu fa mujjee Maguette Sène nga xam mën ci turam nekk administration ñëw ne ah sama jaar-jaar mayuma ma def yenn yi lu ma bëgg a liggéey fii ak fii laa nar a jaaree bu nit ñi yàkkamte wala pression si biti du tax du ma def gestion boo xam ne si tuddoo wala mën na gàkkal suñu liggéey mhm. yooyu mooy gàllankoor yi ñuy am te obligé nga respecter les règles pour mën a règles yi ñu teg par ARTMP nga xam te yëpp da nga ko war a règle procédure yi daal les leaders de l' administration yooyu yëpp dafa nekk ay jafe-jafe yu ñuy jànkonteel des fois keroog bi ñu bi ñuy defee nouveau gouvernement bi doyen déglu nga leen mais le nouveau deux jours après rek gars yi génn nañ commencé wax bourse yeeg affaire yu étudiants yi deux jours après ñu commencé ñu commencé ñu commencé yëngatu waaw euh, mais moom il a du pain euh, sur la planche a. Euh, lui et, et Guirassy ils en ont ah. <laughs> éducation c'est-à-dire que euh, bon globalement c'est que l'enseignement l'enseignement particulièrement nag l'enseignement supérieur. Mm-hmm. les enseignants sont conservateurs. ah bëgguñu euh, quelqu'un qui n'est pas de l'enseignement mu diriger l'enseignement supérieur de mm-hmm. l'éducation c'est le conservatisme professionnel <laughs> ça c'est très ancré chez les enseignants ce qui fait que ce conservatisme là mooy moo tax que souvent ils préfèrent quelqu'un qui est euh, rect qui a été recteur mm-hmm. c'est des une hiérarchie qu'ils acceptent plus parce que euh, okay. c'est le savoir pour ñoom soo xamul waroo jiite donc c'est ça le problème de de maintenant euh, Abdourahmane il connaît il connaît l'enseignement supérieur ah, c'est c'est c'est un consultant c'est quelqu'un qui a sa thèse mmh. c'est quelqu'un qui connaît aussi euh, l'enseignement supérieur de manière générale mmh. mais je pense que suñ ko tànnee c'est peut-être la la valeur euh, ajouté qu'il peut apporter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui, travaille beaucoup sur les questions économiques. Mmh. La, la, question de l'emploi, par exemple, ouais. la question de la formation professionnelle de, de, de, des étudiants, euh, la recherche dans les domaines de, l'économie. Mmh. Euh, maintenant, indique quelque chose quand même dans la démarche. Mmh. Pourquoi Parce que l'enseignement supérieur, nous dans une crise assez, assez importante. Ouais. on ne dit pas, mais l'enseignement supérieur sénégalais est dans une crise. Ça qu'on a réformé depuis mmh. Wade jusqu'à Macky Sall, mm-hmm. mais le gros, gros, gros problème reste. Reste. dire que c'est quoi euh, aujourd'hui les problèmes de nos chercheurs Nos chercheurs, ils n'ont pas de financement. Ouais. boo xam ne waa université Cheikh Anta Diop ñoo ko est vers Anne c' pour la recherche. Mm-hmm. mais c' trop délabré. par exemple ça. l'investissement on n'a pas investi tu y a par exemple soo jëlee UCAD y a plus de quarante quarante cinq ah labos. Mm-hmm. mais ces labos là amuñu bon vraiment les les le, le amuñu ko. le personnel euh, qualifié ils ne l'ont pas. l'administratif ils ne l'ont pas donc notre recherche a des problèmes de moyens. de moyens et de ressources humaines. Mm-hmm. ce qui fait que euh, perspective bi c'est que l'État ne peut plus financer. Mm-hmm. la recherche. Donc euh, Abdourahmane Diouf, il est il a dirigé euh, le club le des investisseurs. Mmh. Il connaît mmh. comment marche le, le, le, le financement et l'investissement. Au moins, il le sait. Il, ouais. sait, il est expert dans ça. Donc, mën na indi dara en matière de financement de la recherche. mën na indi dara en matière de priorité de la recherche. Mm -hmm. parce que c'est quelqu'un qui connaît quand même l'économie sénégalaise, l'économie africaine. Mm -hmm. Donc, je, je pense que euh, moom en tant que ministre il a une compétence et une valeur ajoutée waaw mhm. léegi nag il faut qu'il travaille parce que l'enseignement supérieur c'est une question de gouvernance si si on ne l'accepte pas il aura des conflits c'est ça donc ce qu'il doit faire c'est ce que tout le monde a fait on ne change pas la roue de l'histoire cest mhm. c'est-à-dire que nekk na ministre c'est l'autorité mais l'entourage mm doit être un, entourage de compétences universitaires mhm. que mun na jël des des enseignants qui connaissent l'enseignement supérieur ouais. ça il faut il faut quand même que mu mu am euh, cette prudence là dans, dans son équipe waaw deuxièmement c'est aussi c'est que il faut réformer il doit réformer l'enseignement mais pour réformer il faut nga am les mêmes les compétences administratives techniques et financières donc il a mm. un chantier Bah, maintenant, je crois que bon, il est assez quand même euh, expérimenté. Mhm. que man am na lu mu mën a indi ci euh, ci euh, ci l'enseignement en termes de réforme. Mhm. ça c'est au niveau de de de de l'enseignement. mais beneen crise bu gën a grave c'est c'est au niveau de des, des étudiants. c'est-à-dire mhm. que depuis Abdou Diouf jusqu'à présent on est dans euh, dans le sureffectif. Euh, on n'a pas assez d'enseignants pour gérer toutes les euh, promotions qui arrivent. L'UCAD, par exemple, aujourd'hui, tu autour de 100 000 étudiants. Mmh. Bah, un enseignant, euh, suivant la norme mondiale, normalement, 30 étudiants vont encadrer au maximum, ou 20, entre, entre 19 et, et 30. Mais l'enseignant sénégalais, il, il encadre combien d'étudiants 80, 90. donc il y a un déficit au niveau de l'encadrement mmh. et ça il faut une volonté politique il faut nga recruter le nombre d'enseignants pour les étudiants ils sont de plus en plus nombreux il faut investir dans les amphithéâtres et les salles loolu mooy suñu problème euh, dëgg-dëgg au niveau de, de des étudiants mmh. bon je, je pense que là aussi il faut que le ministre de l'enseignement supérieur bon jéem a xool pour am en tout cas un plan c'est-à-dire que tu as un déficit d'enseignants tu as un problème de de de salle euh, de de d'infrastructure déficitaire bon il a posé tout à l'heure la la question de l'enseignement à distance c'est une des solutions l'enseignement à distance mais loolu dafa laaj aussi un programme mm-hmm. parce que mënoo ne nit ñi nañu def enseignement supérieur c'est que l'enseignant il n'est pas formé pour ça Ah, si l'enseignant ne connaît pas la technologie, il ne connaît pas la pédagogie, euh, il ne connaît pas le, le, le, le, nouvel, euh, le écosystème de l'enseignement supérieur, mm -hmm. mais il va être conservateur. Il va refuser la technologie, il, il, va refuser la mutation. Mais donc, solution, bi moi, c'est de l'encadrer, de préparer, euh, comme nous nous les curricula des étudiants. Mm -hmm. Mais les enseignants, il faut qu'ils aient leur curricula. Mm-hmm. il faut qu'il se forme. Quoi. il mm-hmm. donc c'est les deux piliers euh, je crois euh, bon euh, il y a beaucoup à faire au niveau de de l'enseignement supérieur maintenant yeneen question yi nga xam ne des questions compliquées mooy l'articulation en l'enseignement supérieur et l'éducation de base. Mm-hmm. l'éducation de base ouais. ça il y a une rupture. entre l'enseignement supérieur et le socle le socle éducatif. Mm. muy primaire bi muy secondaire bi mm. muy les mm. les tout petits euh, il faut refonder le système c'est le système qu'il faut euh, faut euh, il faut avoir le courage d'engager ni ñuy waxee par euh, la refondation de la République tout le monde est d'accord sur ça mais tu ne peux pas euh, faire la refondation de la République si tu ne refondes pas ce qui soutient la République, c'est l'éducation. Ouais, <laughs> la c'est l'éducation. ça le, le, la, la, difficulté qu'on a. Il faut qu'on accepte euh, d'engager une réflexion sérieuse. Par exemple, euh, les langues nationales, mm -hmm. bon, les questions religieuses. Mais c'est le modèle éducatif mm. qu'on a tiré de la France, il n'est plus opérationnel. du tout. Il ne, il correspond plus à, à c'est trop à... long, comme je dis souvent, c'est trop long. Donc il faut avoir une nouvelle école. Et, et moi, je, vrai, je suis d'accord avec les langues nationales, avec l'enseignement religieux. Mais euh, mon point de vue personnel, c'est euh, l'éducation trad traditionnelle. Mhm, Ça, il faut se battre pour les langues. C'est-à-dire, moi, arabe, moi, français, moi, anglais. je pense que mënuñu yore notre système éducatif lu lu ko mën na yore c'est l'éducation traditionnelle gis nga tey ji nga jël quelque que les générations lu ñu tey ñun ñëpp c'est l'éducation de base traditionnelle qui est que par la langue voilà boo aller faire l'anglais le français l'espagnol et tout, <laughs> mais bu ñu waxee suñu làkk on se comprend mais on se comprend et on transmet plus facilement et je crois que suñu bëggee réellement engager euh, donc euh, cette euh, cette réflexion là euh, il faut revenir à aux traditions africaines mm -hmm. il y a des traditions africaines il y a une éducation orale mm -hmm. et ça si on ne revient pas à ça gis nga même euh, par exemple euh, bon je donne souvent l'exemple ça l'ordinateur c'est une machine mm -hmm. mais ñun on a une machine culturelle la la grammaire ñu ñu jaar ci par leur grand-mère par leur grand-père mhm. mais dafay wute ñu jaar ci ci technologie mooy lu ñu wax léegi yaru maam yaru maam mhm. yaru maam exactement ce qu'il a dit c'est-à-dire ça c'est bon peut-être je suis trop influencé par Cheikh Hamidou mais il a raison c'est-à-dire que l'école euh, du tubaab la xamul ne ñun am na li nga xam ne du deñ mukk ci ñun c'est-à-dire c'est ancré dans dans mmh. dans, dans la culture ça tu as beau amener colonisation islamisation et tout ce que tu veux les civilisations extérieures mais la culture africaine dafa mel ni du dee mmh. pas voilà c'est, c'est exactement ça pour moi l'enjeu l'enjeu de tous ces problèmes qu'on pose euh, sur l'éducation même sur la gouvernance Sadio Diomaye il dit qu'il veut la rupture mais mënoo am rupture si si tu n'associes pas le marabout le, le traditionnel le, le, les valeurs culturelles c'est ça on a un modèle de gouvernance qui qui est un modèle de de partage euh, euh, mais le modèle bureaucratique il est français. c'est ça en notre administration. mais mais notre mais imagine-toi que jusqu'à présent euh, administration bi ñu en tout cas ñu ñu bari ci Sénégal lu ñu jàpp ñuy jàppale administration bi mooy nguur. alors que l'administration son but c'est le service public mm-hmm. mais soo ko jàppee nguur tu tu crées déjà une barrière entre celui qui gère euh, bah, tes destinées mm-hmm. avec ton vécu c'est ce que Victor disait tout à l'heure ni mu doon wax noonu par rapport au service public mooy ñuy privilégié au niveau même de l'université mais c'est un problème encore avec les étudiants <laughs> oui mais par exemple les étudiants donc comme ni mu ko waxee léegi c'est-à-dire que là on a un problème euh, sérieux c'est-à-dire que l'université elle est importée mmh. le modèle est importé c'est-à-dire que jàng dem euh, dëkk à l'université bah c'est c'est c'est tu tu es un privilégié dans le système mm-hmm. Mm-hmm. francophone ouais. tu fais tes études tu es bien entretenu mais ñun on quitte le village on est sans <laughs> il a sa chambre mais on va aller loger <laughs> tu tu casses le modèle tu casses le modèle alors que c'était pour que les gens puissent se mais pour individu. C'est pour un vas personnes. Ah voilà, si c'est par exemple, je prends à mon époque, quand on avait des copains mariés là. je veux dire que il faut qu'on réfléchisse par exemple l'hébergement. comment ah, l'acclimater chez nous. Mhm. comment l'acclimater il y a un modèle urbain. Mm-hmm. mais ñun la majorité elle est rurale. Mm-hmm. Mm-hmm. pour ñu intégrer ko. mais doyen dañ daan héberger de ñun dañu daan ah. mais on était 5 demande une culture. tout c'est-à-dire par pourquoi pas euh, je vraiment c'est un conseil c'est-à-dire que vous ouvrez sur de nouvelles bases. ils ils veulent moderniser le système. mais il faut une mise à niveau. recyclage. ça doit pas être brusque. na leen jaral ba def une politique de à mise à niveau un an deux ans mais ce qui est important c'est que mu am socle su xesee ba taxaw ku ñëw ils vont suivre parce que le, la, les Sénégalais aussi c'est ça c'est-à-dire que ils ont peur de l'ordre ils n'aiment pas l'ordre mmh. mais quand ça c'est, que yow tu là pour être le le, le ils acceptent ils acceptent mais si tu, si tu n'es pas ferme. Mhm. bon ñoom ils sont assez intelligents pour contourner. <laughs> dogguma la mais loolu yëpp si la bokk. parce que pour dugg si biir université mooy li ma doon naan sànq la dématérialisation des accès pour dugg maanaam même ci pavillon yi. léegi suñu paree carte yi mooy enrôlement yi ma la wax maanaam sur les cent mille étudiants mosuñu logé mais ñun genre forme carte courte lay doon soo ko amul yow doo mën a am sa am accès ci pavillon de ce fait mën a duñ ñëw rek héberger nu neex doo mën a ñëw rek mën a kalandute ku la neex comme ça léegi ki ngay kalandute sax bu fekkee ba léegi rek dina am ba léegi dootul nekk comme chambre yi euh, ñu daan nekkee ay 10 20 peut-être étudiant bu ne mën nga héberger kenn mais nga héberger day fekk nga ah, a xam kan mooy dugg ak kan mooy génn. maanaam euh, c'est en ligne la codification bien vrai que ren ak euh, waxuma sax du ma ne pression mais ak lu fekk pareegul woon à 100 pour cent moo tax ñu def enrôlement cette année bu ñuy war a codifier soxlawul woon sax ñu déplacé wu. ñu déplacé wu ñëw mais n'empêche créé nañu système d'enrôlement bi nga xam ne même boo codifié boo ko amul soo ñëwee doo mën a codifier. pour ñu mën a identifier. pour mu gën a leer loolu c'est ça ça c'est plus pour la sécurité douanière. c'est c'est important parce que. parce que que bëgg naa ñu dem ci kii ah, diplôme langue arabe parce que moom mu ngi xool heure bi. doyen bi nga koy wax moom mi ngi koy wax. Ah. Euh, xam ne dañ ko war a mën ni andi dans le dans le système éducatif. dans sa globalité. lépp bari. parce que réforme yooyu mooy tax ñu am le type de sénégalais que nous voulons. te réforme mënoo ko door lu dul ci préscolaire bi. ci petite section ba nga koy door. pour ñu mën a dem. donc liggéey bi xaar la ministre de l' éducation nationale lu énorme la. lu bari la. par rapport au système sur sur le sur le contenu des curricula ci euh, l' intégration des langues nationales la globalisation. sur la formation des des enseignants. Mm-hmm. surtout ça sur la formation c' est important. parce que aussi nit ki munoo koy jàngal c'est-à-dire moo ëpp la xam-xam. parce que sama doom moo ma ëpp xam-xam man. parce que moo ma gën a. ci nouvelle technologie ci nouvelle technologie parce que foofu laay foofu waxee. foofu laay waxee pour nit dégg ma. sama doom bi nekk ci kër ga moo ma ëpp xam-xam parce que nouvelle technologie léegi la ñuy jàngee. donc nit ki mun il faut que enseignants yi aussi accepter. dem def mise à jour bi. Mhm. pour mun a tolloog xale ba. Mhm. dangay ngay dugg ci école. wala sax pour mën a pour mu mën a romb xale bi. parce que bu ñu tolloo suñu tolloo du baax pour mu mën ko romb. parce que xale bi léegi li muy jàng ci machine na koy jàngee. Mm-hmm. moom moo la ko gën a am parce que dafa juddu màgg ji. donc il faut que enseignants yi aussi accepter def mise à jour pour mën a romb xale bi pour ñu mën a am. maintenant il faut dans ce cadre là que état bi def ñu ci def ci ay moyens yu bari. xam nga mm-hmm. université amoon na temps ñu doon wax un étudiant une machine. Mm-hmm. honneur naa ko. est-ce que tu comprends. Mm-hmm. pour permettre ñoom it ñu mën a utiliser les machines pour mën ci jàng parce que système jàng bi ñu doon wax sànq. Mm-hmm. UVO yi da koy def non. Mm-hmm. mais ces étudiants ont d'autres difficultés. IVS. IVS IVS waaw. ces étudiants ont d'autres difficultés. ils ont des problèmes de problème de connexion. problème de machine posée. xaw ma nag kan mooy gérer UVS yi su nekkee cour su nekkee rectorat la xaw ma. ñoom war nañ ci mën a liggéey boo xamante ni jàng bi du am. ministère bi moo koy gérer maintenant pour le ministère de l'enseignement supérieur. il faut continuer ci li ma jàpp la construction des universités parce que Dakar fees na. l'université nekk Dakar fees na université yi ne ci région yi. bëri nañu ay problème bëri bëri na ay problème et nous avons un ministre de l'éducation nationale qui pour la suppression du bac. ah parce que aussi soo koy déglu da ngay comprendre lan la nit ki day am moyen bu baax dem bac échoué mhm. mën na am. loolu de ce sont les réformes yu xaw a compliqué day bëri bëri na. waaw moom bëri na quoi. Hmm. lui il dit je pour la suppression du bac. c'est-à-dire c'est pour donner la chance aux enfants yi nga xam ni am nañ moyenne pendant deux trimestres deux semestres ñu am moyenne yu baax ñu mun leen permettre ñu dem. te bu ñu demee examen duñ maintenant loolu dañ ko réglé woon au niveau du du de l'entrée du BFM. BFM soo dañ leen orienté. Mm-hmm. nga dem seconde. maintenant ci réforme yi. mën nañ mun nañ ko def noonu par rapport au bac. Mhm. cest à soo amee benn moyenne bi te amoo bac ñu orienté la à l'université parce que boobu du ñu ne amoo niveau. parce que niveau bi lañ ci soxla. mais ak ak système bi nu mu demee nii ay problème lañ donc yaa a beaucoup de réformes à par rapport à l'enseignement supérieur par rapport à l'éducation dans sa dans sa dans globalité. Mhm. pour permettre affaire yi dem maintenant nag les syndicats. la vocation d'un syndicat c'est de défendre les intérêts des travailleurs. Mhm. mais loolu ñuy wax noonu amoon na fi. là je prends la place des enseignants des syndicats ah. amoon na fi. toogoon nañ fi benn moment boo xamante ni dañu signé woon benn pacte boo xamante ni nañ toog ay année grego yaa koy fàttali. sax moom mooy central yi la woon. central yi defoon nañ fi ay do ay diir yoo xamante ni yëngu-yëngu. amul mm-hmm. maintenant avec avec le nouveau programme moom le nouveau gouvernement foofu laa doon waxee ne le ministre devait devait devait rencontrer le G7. Mm-hmm. pour ñu mën a tënk ay mbir. pour bañ a am. étudiants yi nit mënu leen tere wax. étudiant moom nit mënu ko tere wax. parce que moom pour moom pour mu exister il faut mu wax. il faut su su affaire bi tardé tuuti. xamuñu fan la yéexee. seen yoon newu ci. su su nekkee dañu war a naan ndox xamuñu fan la yéexee du ñu seet si les mécanismes maintenant nag kaas nañ ko ñun moom kaas na ko. léegi ba mu demee ba nekk di liggéey ba xam ni muy demee ci lay doog a mun a comprendre naa nag seen rôle ñoom c'est de tenir un langage de mooy lañ doon wax démb. waxtaan ak étudiants yi wax leen comment ça se passe le processus. pour ñu mën a dal xam affaire bi ne ah affaire bi su yéexee rek sa parce que fii la. manque de communication mooy tax. yu bari di xew au niveau de l'université. moo tax avant première am solo. voilà lépp fii lañ koy waxee. lépp voilà heureusement parce que Victor leeral na ko euh, Sénégal. ñu dem ci li nga xam ne moo di les diplômes insertion des diplômes en langue arabe. jaay mm-hmm. daan nañ ko fi jàmbat da ngay jàng jàng jàng jàng mais sa diplôme duñ ko duñ koy reconnaître. waaw loolu la woon man gis naa sama petite sœur sama petite sœur bac en arabe la def waaye foofu defe naa fa la jaaree après daal. bàyyi day bàyyi muy jaay day jaay. jërëjëf jërëjëf ci question bu am solo boobu et puis vraiment analyse yi fi invité yi def vraiment am na solo trop trop sax. Mhm. xëy na am na quelques points yu mu bëggoon a laal sama camarade bi. Victor Diouf mhm. Victor Diouf. Mhm. c'est-à-dire euh, pour impact boobu laa bëggoon ñëw tuuti. pacte bi mosoon na fi am. mais central yi la ñun Sénégal suñu problème bi ñu am ci syndicat yi. bon non central yi baal mais cent mais central yi ñu am ñoo am ñoo am problème. non central yi am parce que xeex bu jotee syndicat de base ñooy xeex. xeex tout à fait. mais les centrales ñoom ñooy récolter les dividendes. te yàlla. bu ñu demee élection de représentativité centrales yi dem syndicat enseignants yi dem waa santé dem mais non waa université dem. Mm-hmm. mais bi résultat yi génnee. cent cent cent centrale yi jiite yi am pour pourcentage bi gars yi soxla. Mhm. ñoom dañuy am subvention annuelle. Mhm. oui c' est des centaines de millions. mais éducation le G7 de 2017. ba G7 bi commencé 2022. Mhm. du ñu am dara am duñu am dara. te pourtant xeex bu jotee syndicat de base yi ñoom ñooy xeex. léegi syndicat yooyu nag moo xam ne ñoom ñooy centrale yi ñoom ñoo signé woon pacte boobu ngay wax. tout parce que ñoom pacte boobu dafa am lu mu leen jural. moo tax ñu nangu signé pacte boobu. donc pacte boobu mën na am ci éducation man gëm naa ne mën na am éducation mën na am santé. parce que déjà ñun amuñu lenn lu ñu état di jox. pour ñu am pacte. ñun xam nga suñu pacte mooy lan. accord yi. le maximum. xam nga accord mënoo ko respecter à 100 cent mais le maximum ci point yi nga xam ne moom nga signé nga respecté ko loolu loolu bu amee rek pacte am na déjà. loolu loolu bu amee rek déjà pacte am na. parce que buñ la sa buñ la sa buñ la sa satisfaire sa say doléance mais boo génnee xeer sa sa dooma naan la papa dem na liggéey waaw mhm. pacte day am mhm. donc respect ak moom accueil rek pacte la kooku mooy benn bi deuxième point bi mooy ñun en tant que ay organisation surtout G7 bi nga xam ne mën naa wax ci seen tour ñun demandé wuñu augmentation de salaire ñun li ñu doon demande c'était nañu yamale waaw xam nga man du ma nekk un professeur RH A1 mu am beneen fonctionnaire bu bokk RHA 1 kooku indemnité mën ma fay man ah Diagne waxoon na ko fi nit ñi de di naan. xam nga loolu loolu xel nee na am na ay enseignants dem ba am 1 million. xam nga jaañ ba mu ko waxee ba mu ko waxee la daanu. ndax ba ne enseignants yi am nañuy fayeeku 1 million ba mu ko waxee boobu la daanu. parce que loolu amul. amul loolu amul moom indemnité la doon wax ne. non non non déedéet dafa amul di tout. suñu salaire ñun RHA 1 moo ci gën a kawe. Mhm. soo ko joxee sa euh, Euh, sa sa salaire am jox ko ay indemnité am mënta am un million. ok kon leer na mënta am mënta am mënta am un million. Mm-hmm. léegi nag li ñu waxoon mooy yamale. yamale boobu nag moo indi woon ñu signé protocole deux mille vingt deux bi. Mm-hmm. parce que état dafa def ay études. benn cabinet la woo mu ñëw mu fay ko ay million mu def étude ci fonctionnaire Sénégal yi ni ñu leen di rémunérer. ni ñu ni ñu leen di fayee. Mm-hmm. enseignement santé armée tout tout tout ñëpp rek. ñu gis ne enseignement ñoom la ñu gën a néew lu ñuy fay léegi cabinet bi def ay proposition ne mën leen a tollole mais mën ngeen dindi écart bi nag maanaam mën ngeen a wàññi moom écart bi xam nga man ñun en tant que enseignant suñu nombre nekk par exemple quatre-vingt-dix mille boo ñu bëggee comparer ak magistrat yi nga xam ne moo tax ñu trois cents xam nga di nga di nga nit moom ñu ñu jafe-jafe même bu ñu joxul salaire u ki ki ki ki bokk mooy RH moo tax may wax même boo ñu joxul même sal même salaire bi écart bi nañ ko wàññi loolu la ñu la ñu demandé woon bi mu ko defee yéen a ngi mel ni waa RTS ah la ñuy demandé danaa ñëwaat ci waa RTS voilà léegi bi ñu ko defee résultat yi li mu joxe Mm. état ne moom loolu mënu ko appliquer budget du ko attan. dafa diis dafa diis ñu ne ko ok kon nañ ko négocier. Mm-hmm. bi ñu koy négocier nag loolu moo indi protocole deux mille vingt deux bi ñun en tant que ay ñu def suñu étude def suñuy contre proposition yoo xam ne état day def ay proposition mm-hmm. état def ay proposition ñu ngi def ay contre proposition ñu àgg ci war a signer mm-hmm. ñu ñu dugg ci problème impôt yi après. waaw waaw bi ñu duggee ci problème impôt yi euh, foofu état def ay proposition yoo xam ne def ne net à percevoir. net après impôt maanaam bëgg ñu dugal ci ay calcul yoo xam ne day utiliser ay métaphore ay métaphore xam-xam yoo xam ne li doyen wax moo doxoon mooy ñëw jàng ci sa làkk di xalaat ci sa làkk moo ñu génnee ci protocole boobu hmm. man maa indi ne leen seen tubaab yi ngeen di làkk fee ngeen koy teg. ngeen wax ñuy wax la net après impôt mooy la fee ngeen koy teg moom net à percevoir fee ngeen koy teg léegi man dama am métaphore wolof wala métaphore à la sénégalaise ñun ñi ñëpp ay baykat lañ te li ëpp ci li ñuy bay mooy gerte nañu indi métaphore naafu gerte pour ñu xam li ngeen ñuy yokkal ma ne leen li ngeen ñuy yokkal def da ngeen koy def naafu gerte bu nekkee naaf nañ ko bàcc ngooñ mi na bokk ci impôt bi su ngeen paree ngeen xolli ko xolit yi am na njëriñ na na bokk ci impôt bi su ngeen paree ngeen tànneel ñu kemb gi ngeen tànneel ñu xare yeeg yooyu buuse yi loolu na bokk ci impôt bi lii des muy kemb gi ñun loolu moo ñu intéressé ñaata lay doon waaw li ngeen di am net c'est vrai après gars yi moo andi woon problème bi sax d'ailleurs voilà ñu et puis ñu commencé naaf mm-hmm. bu ñu liggéey bu ñu duggee ci ci PS yi ñu ñu defal naaf teg teg teg teg teg bàcc xolli tànn ñu ne noonu non non nañu yokkaat naaf bi li baaxul ñu yokkaat naaf. noonu noonu lañ ko demee ba ñu am accord boo xam ne accord historique la. Mhm. parce que yokkal nañu enseignants yi selon seeni catégorie commencé ko ci MC PC ba PS ba inspecteur. Mhm. ku ci nekk yëg nga sa bopp ci augmentation bi donte sax tolloowoo sa morom bi nga bokkal benn hiérarchie mais quand même sa njàmbat dootu bari. parce que presque sa salaire sax presque sax xaw na sax doublé ci ñenn ñi. Mhm. après augmentation donc ñun loolu lañu demandé demandé wu ñu augmentation mais dañ li ñu demandé woon mooy. moo ñu yamale équilibre quoi. voilà mu am benn équilibre boo xam ne même bu dul équilibre à à. mais mais mais mais mais doyen foofu foofu dina andi problème de parce que ba ñi ngi réfléchir. waaw xam nga foofu kan lay andi problème. waaw suñu demee ci retraite ba. non non non du andi problème. parce que su boobaa parce que salarial bi non dafa yokk. waaw yokk na 5 pour cent. dañoo yokk indexation salariale bi yokkal ñu aussi suñu cotisation bu FNR. waaw ah, d'accord yooyu yëpp ah, ah kon kay kon kay loolu c'est réglé ñun ay techniciens lañ quand même. mais c'est-à-dire loolu bàyyi ma bàyyi ko xel beneen bi attends pour ma pour nga bañ a dagg sama lii tuuti. léegi loolu bi mu amee. Euh. dafa am lu ko jiitu ci enseignement supérieur. waaw waaw waaw c'est vrai. parce que ñoom aussi. Uh-huh. foofu la ñu inspiré wu sax xëy na. Mm-hmm. pour ñëw ñun defal ñu ay contre proposition ci li xam ne étude bi moom moom la defoon. Mm-hmm. mais pour wax la ne rek ñun. nous sommes ay sénégalais yu réaliste xam nañ li mën a nekk vraiment ñun bëgg ñu signé ak état accord boo xam ne xam nañ ni trésor public attanu ko ñun xam nañ loolu du ñu def loolu donc ñun am nañ étudiants yoo xam ne bi ñu defee seen i war nañu ne état lii la mën état mënul lii pourtant ñun li li li liñ doon demandé ëppoon na li état joxe c'est vrai na ko mais quand même dañoo ndax salaire bu ñu yokk du am ndax salaire bu grève leneen lay doon grève sax du am xamul ndax du am. mais temps yii amul enseignant yi doon jàmbat. non du am mais dernière année yokkal nañ leen lu bëri quand même dernière année boo jëlee ration fi ñu jógee. Mm. muy mm. nguuru Abdoulaye ba si nguuru Macky Sall. sincèrement. waaw moom mais mooy li ma wax loolu loolu loolu. deuxièmement ñoom lu nga xamante ne bokkul c'est différent. man j'ai vu j'ai su ñi si lañ bokk même ñun PACS yi ak bokk nañu ak ñoom yu bëri ay indemnités yu bëri. man je suis travailleur bokk naa ci syndicat comme ñoom mais en fait je leur suñ ko dressé de noonu chaque jour mais il faut la question il faut poser la question à savoir baykat bi nekk foofu noonu te nekkul fonctionnaire kooku lan mooy wàllam kenn nag kenn lan mooy wàllam parce que suñ toppee bi ñu bëgg a demee enseignement aussi mën nañ dem ba xanaa peut-être ak l'arrivée du pétrole mën na am sens moo am sens comme moo ki mu ngi wax sànq ne euh, le problème de de la retraite mais avant boobu xam na mooy le problème di chaque fois il prend une comparaison avec le magistrat son corps mm-hmm. il y a une grande le magistrat amul ñaari fonction mënoo nekk magistrat exemple souvent nga da nga dem defaat beneen liggéey magistrat privé l' da gis ko war a jàngale fii di jàngale ñetti école. may ma ma non non may ma non non ci benn benn li boo xam ne. daanaka du ma damay leeral rek may ma rek. xam nga si ministère bi laa bokk enseignant enseignant buy jàngale ñetti école amul. xam nga tax ma la amul loolu la ñuy xar mat na de suñu non maa ngi ñëw suñu système maanaam. même bu ko defee daf koy def illégalement. waaw kay illégalement la ko maanaam ñun nag man waxuma lu illégal man lu légal moo tax may wax lu lu légal aussi laaj défendre un enseignant bu dem ci lycée wala ci CM ñu jox ko programme am. emploi du temps emploi du temps bi c'est annuel pour année bi yëpp la. waaw parce que souvent da nga dégg ne enseignant bi dafa grève pour mat loolu mënul nekk. Uh-huh. maanaam boo grévé. dafa am ay heures yoo waroon jàngale ci public bi nga grève ko. mënoo da nga ko war a fay da koy fay après sax da koy fay ñun jour yi ñuy grève da nga def dafay nul après ñun dañ koy fay. léegi mënoo jóge ci jour boo grève heure heure tee ne damay xari matt école sàngam parce que école boobu ngay dem di fa di privé am na emploi temps boo xam ne heure boobu am na luñ luñ luñ fa mën a jàngale. lu luñ ci war a jàngale donc kon doo grève pour xari matt mënul nekk. mais bëri na ñuy xar mënul nekk non non non kii kii xari matt mooy ki ñu jox emploi du mu respecté ko. mais est que yoon mais na ko. maa ngi ñëw mu respecté ko mu am ay heures yoo xam ne heure libre la yoo xam ne école bi soxlawu ko mu dem joxe ko école privée loolu même yoon da ko ko tere. ok ah, loolu kon tey yéen xam nga moom lim li mu wax nii dafa mel na ñun dañu nekk ci. non non non kon déggante ngeen non yéen a bokk yéen a bokk. kon nag comme li ma wax nii yàlla wax ne enseignants yi. am nañu yeneen liggéey non non li mu wax noonu. yow li mu wax loolu wax même bu ñu xaree mat. illégal. non c'est parce que loolu souvent boo gisee souvent ci seen intervention ñaari corps lañ taamu di di di wax ne dañu war a bokk yemale. dañu naan souvent les magistrats ak les impôts et xam nga y a une grande différence les les inspecteurs des impôts et souvent li tax ñoom seen indemnité boobu ñu jox leen ko indemnité boobu maanaam woon ci salaire bi mais dañuy gis ne vérificateur yi te boo amee entreprise yoo xam ne bokkul ak li nga xam ne mooy li nga xamante ne c'est fixe état mën na ko trouver c'est sous forme de motivation. Mm-hmm. tey ku nga war a vérifier te nga war a vérifier ma war a vérifier vérifier aadama bi entreprise am war a fay exemple trois cent cinquante millions. ma ñëw man sama salaire xam nga conditions yi demeewul noonu ma ñëw tey vérifier aadama mu jox ma exemple tey benn dix millions ma bàyyi ko mu dem. l'état perd plusieurs combien de millions mhm. loolu tax ñu ne léegi rek en fonction ñuy vérifier man liggéey bi ah. man seen kii bi noonu lañ ko calculer le ressort pour ñoom motivation euh, boo seetloo ñu bari xamuñu tey le paiement des salaires mhm. Sénégal 90 mhm. pour cent ressources yooyu foofu lay jógee foofu lay jógee maanaam foofu bu doxulee bu baax tey suñu leen ne ah les inspecteurs des impôts et domaines léegi yéen dañ leen di yemale ak magistrat ak ak kii nii ñoom liggéey boobu tey démotivation boobu démotivation am foofu ba foofu doxatul soo mën nañu indi ay problème de salaire. parce que problème boobu léegi nag pour régler problème de la corruption boobu. peut-être ba léegi sax mën nañu wax ne du sans parce que boo ko defee du tere ku bëgg def corruption nga def ko mais au moins mën nga ne kii dem di liggéey on l'a mis dans de mm-hmm. mais comme li nga wax sànq kii wax na ko sànq Sagnane enseignement yi. nombre bi c'est c'est diamétralement opposé avec moyen de 300 magistrats. Mm-hmm. nga jël loo ko risque yi ci ne ak bu enseignement bu enseignement. ah déedéet déedéet bu dee risque moom. non su ma naan la probabilité la probabilité la probabilité ñu naan ay ay ndoxu sa yàlla ban magistrat moo koy naan amul risque boobu c'est différent xam nga risque boobu c'est différent proportionnel bi ngay xool gis nga tey un magistrat nga condamné léegi quelqu'un tey mu génn dans la rue te nous connaissons notre société nga condamné benn Adama Fall à mort wala yow njabootam gis la wala famille am gis la. tey si mbay demee xam nga di daaw nit sax jam la topp la jamati la. Ah. il y a beaucoup moo tax en état dafa am équilibre yooyu foog ñu foog ñu jël ko man d' naa nee naa nous sommes dans le ministère ñi bëri si ñoom ñun ñun ak ñoom bokk nañu indemnité yu bëri indemnité responsable comme ñun coup exemple mais étudiants yi à tout est-ce que xam nga ne les gens ñu ngi naan étudiants yi l'université les gens liggéey ay toog muy doog ma jox la benn exemple ñun bokk nañ ci raar yi nga xamante amuñu heure man à l'université damay toog di nelaw des fois tey l'administration normale yi dañuy liggéey 8 heures 16 heures ñun à tout moment ba 2 heures du matin directeur da lay woo ne ñoo université léegi léegi parce que étudiants toog léegi léegi xool gis ne euh, pavillon bi mu ngi xel mu ngi xel ñu génne fat fat tëgg bu yi bunt bi léegi léegi à <laughs> la minute qui suit amul ay directeur suba la léegi léegi nga ñëw recevoir leen wax leen li mën a régler problème bi mm-hmm. amuñu on liggéey boo gis am na amuñu am liggéey boo gis am na ay risques loolu saaba va toujours exister mais euh, suñu réew yi loolu bokkoon na li tax mu métti ba ban naa si budget bi 90 pour cent ci fonctionnement lay dem mm-hmm. ci fonctionnement mooy paiement des salaires tout ça mm-hmm. tout ça léegi nag ñu ngi ñaan ak l'arrivée du pétrole et du gaz xëy na yàlla dañu may ba ñu mën a am lu ñu mën a. ay a mën a liggéey gën a a souffler. nga xam ne benn benn tout ça ma dugg si le problème may wax ci sixième ma pare si. en réalité Sénégal mooy li bu ñu dem politique nit ñi du ñu seetaan man ma ànd ak ma ñàkk ànd ak damay wax li nga xam ne loolu laa jàpp sama akulaay taala mais si programme Sonko boo leen seetee ci seen projet ñoom bu ñu dem si kilifa diine yi wax te wax nañ leen ne ñun suñu gañee en réalité sax ñoom yeggaguñ fa waxuñu direction ñoom ministère lañu waxoon. Mhm. ministère des affaires religieuses. Mhm. boo xam ne dañu wax ne day am budget day am lépp. Mhm. léegi nag nit ñi Sénégalais souvent moo tax may jàppale fu mu nekk nii muy baax na muy bon na ñoom projet boobu lañ présenté Sénégalais yi. nit ñi fal leen ci loolu foog ñu déroulé ko man am na li ma ci d'accord parce que am na li ma si jot am malgré le fait que bokkuma ci projet mais liir naa ko xam na li ma ci xam. ñoom am na fu ñu expliqué ñu exemple ki jàngee Égypte arabe jàng ba am master 2 exemple. ñëw Sénégal mais ça pourquoi euh, tey ñu war a jàppale kooku waru mën a dugg dans la fonction publique wala waru mën a administrer comme yeneen beneen ci enseignement mm, général léegi nag bu fekkee loolu lan lañ ciy xaar man boog li ma ciy xaar comme ñoom ni ñu ko expliqué woon à l'avant ñu ne day doon ministère ba am day am budget am lépp mm. ça va régler des équilibres mm. parce que quoi que l'on ma doon am tey Touba day jot rek ñu xaw gars yi dem amul traçabilité kenn xamul lu ñu ci def ak lu ñu ci deful hmm. Tivaouane kenn xamul lu ñu ci def kenn duñ ci deful kenn xamul léegi bu fekkee mën na régler le problème des équilibres tey su nekkee au ministère mais ça c'est c'est ministère bee la na am loo xam a vérifier au niveau des finances publiques mën a vérifier ce qui est moo ko fi defoon waaw man dama bëggoon ñëw tuuti ci ministère boobu avant ma ñëw ci diplôme yi waaw ak ci direction yi mhm. cest dire ñun ñun en tant que syndicat SNELAS ñun dañu am mémorandum bu ñu déposé woon même. ok am nañ même beneen mémorandum bu ñu defaraat démb la ñu suñu demande d' audience. pour mm. daje ak le nouveau ministre. pour présenter ko suñu mémorandum bu bees boobu. Mm. li ci nekkoon avant mu nekk mémorandum déclaration la woon bu ñu defoon ñun dañu demande woon na am ministère. des affaires religieuses boobu sax ñun suñu projet wu waaw mm-hmm. parce que ñun suñu ko que ñun aussi ñu ngi ñu ngi ci terrain bi xam nañ li Sénégalais soxla mm. ministère boobu ñun liñ ci bëgg mooy mu nekk ministère boo xam ne lépp luy pas-pas pas-pas mooy ngëm-ngëm. Mhm. ci Sénégal. Mhm. foofu lañ koy dajale. Mhm. moo xam lislaam la moo xam christianisme la moo xam suñu mbaaxu maam la. maanaam comme ni ko doyen waxee sànq. lool loo loolu lay dajale. bu ko dajalee sa palape mu mun naa ñu ay yàlla nee na wala Jésus wax na ci Bible si déedéet. lii la sénégalais yi soxla na ko tiire ci benn verset coranique wala mu tiire ko ci benn chapitre bu mu bu mu jógee ci bible wala mu jógee ko ci benn proverbe boo xam ne mi ngi jógee ci suñu maam yooyu lañ ñuy tënkal muy ay modèles yoo xam ne moom lañ ñuy formé kooku mu féete boor beneen bi mooy su xew-xew yi amee comme ni mu ko waxee léegi xew-xewu diine yi bu amee président de la république day yebal ministre de l'intérieur mu dem Touba mu dem Tivaouane mu dem Kaolack mu dem Popenguine ministre ministre boobu mooy dem. Hmm. mais ñeenti diine yooyu kese ñeenti kër yooyu kese nekkuñu Sénégal. yeneen kër yi bu ñu xewlee kan lay yebal da yebal le gouverneur ou bien le préfet mais bu ñu am amoon ministère boo xam ne ki yore wàllu diine. Hmm. ku ko jiite baax na. na nekk imaam na nekk labbe na nekk ku ku ku ku ku jóge ca ca ca lël ba na jóge cest dire ku ko jiite baax na mais contenu bi ñu koy defal mooy Sénégal lépp lay Sénégal yépp lay ëmbaale bu xew xewlee ministre boobu mooy demal mooy dem day dem oo nom di gouvernement xew-xew diine bu am kooku mooy dem wala kooku mooy yable mhm. parce que wax nañ ko wax mooy wala waxuñu ko mais am na këru diine yoo xam ne du ñu gis ministre de l' intérieur. Mhm. loolu loolu neexu leen. mais nag duñ ko wax mais bu ñu am ne ministère bu mel noonu ministère boobu mën na jël en charge côté boobu. noppale voilà day daal noppale kooku mooy benn beneen bi mooy. comme ñun amuñu ministère boobu ñu bëggoon ñu am ñu am benn direction boobu na direction boobu jaale loolu en compte te man jàpp naa ne dina ko bàyyi bàyyi waale xel kam fay nommé na nekk koo xam ne dana dañ ko jox benn cahier de charge boo xam ne contenu cahier de charge bi mooy lépp luy pas-pas ci Sénégal dañ ko mm, ci ëmbaale ci biir na présidence de mais amoon na fa mais mais daawut liggéey. non dafa naan il était chapeauté par un ministre conseiller chargé des affaires religieuses. nekkoon na ko amoon na benn doyen bu sant bu ko nekkoon. man mii dem naa ba bureau très bien mais yooyu yëpp mais yooyu yëpp. xam nga yooyu yëpp c'est des nominations yoo xam ne moo tax amul njëriñ. Mhm. donc comme comme li lu bees la nañu fexe bu contenu bi ñu ciy def na li Sénégalais yi di xaar. na ñëpp di seen suivi voilà beneen bi mooy lenn rek laa xaw a am tuuti laa xaw a ticket bi mu ko déggee. Mhm. mooy dañ ko lié ak les diplômés. en arabe mhm. man gis ma woon loolu. na nekk rek benn direction boo xam ne mooy chargé affaire religieux ñu yam foofu parce que buñ ko lié ak insertion wu les diplômés en en langue arabe rek catholique bi day day day gis boppam dëgg ah kii kii jógee ca fële ñu dootee ba Casamance te Casamance day gis boppam ka jógee Sine day gis boppam ka jóge saalom day gis boppam day gis boppam parce que parce que ñoom dañoo jël parce que ñoom dañoo jël langue bi dañoo jël langue bi taqale ko ak ak diine bi ak diine jox jox naa la fi man exemple Liban man jox naa la ko ci exemple Liban demal Syrie y a des catholiques yuy yuy làkk arabe ay arabe lañu sax yu weex tàll cest à affaire bi bu ñu jël arabe bi taqale ko ak diine ji directement erreur boobu man laa si ne def nañ ko lu ñu waroon def mooy insertion wu diplômé en arabe bi nañ ko bàyyi ak fonction publique nañ ko bàyyi ak ministre de l'éducation nationale nañ ko bàyyi ak ministre de l'enseignement supérieur supérieur mhm. ñooñu géré ko mhm. ci ñu créer ay université yeneen comme ni mu ko waxee parce que étudiants yi dañoo bari mhm. arabe bi rek bac arabe bu officiel bi dina génne par an 4000 bacheliers 4000 bacheliers yooyu mënoo leen a orienté ci université yi fi nekk donc même bu ñu amul seen université spéciale nañu am benn université boo xam ne dina mën a contenir nombre bu bari ci ñooñu ñu doolee université bi nekk Touba parce que déjà boobu taxaw na. Mhm. créer ay université yoo xam ne c'est ay université yoo xam ne enseignement technique la dañu xamul ne ñiy jàng arab mhm. li ëpp ci ñoom dañu leen a farale diine mais li ëpp ci ñoom ay techniciens lañ. Mhm. li ëpp ci ñoom c'est des techniciens parce que ñoom dañuy jàng mathématique bi el algèbre bi les matières scientifiques que loo xam ne ki jàng français du ko du ko ni jàng mhm. donc ñooñu il faut ñu am ay débouchés kooku mooy benn bi les diplômés en en en en arabe fi ñu nekk nii d'accord naan leen utal ay insertion lool ñun loolu yàgg demandé mm. parce que euh, ñoom ñu ngi dugg fonction publique mais benn bunt la ñu am mooy enseignement même boo defee dans les ministères maintenant non dama ne la benn buntu la ñu am mooy enseignement. daaw daaw la président Macky Sall ubbi. mais concours ah, direct bi la ubbi. ok trois at mi. te ñooñu lu ñuy def diplomatie kese concours. nga xam ne un fonctionnaire mën na ko def dugg ENA dañ ko tëjal les diplômés en langue arabe. ok dañ leen ko tëjal ñooñu ñu dem nekk gouverneur mënuñu dem impôt et domaine mënuñu nekk inspecteur et domaine domaine mënuñu dem nekk gouverneur mënuñu dem nekk ah. nekk nekk préfet pourtant les compétences mi ngi ci ñoom hmm. et puis ñoom sax dañu am benn plus hmm. parce que ki fa dugg ak diplôme français hmm. niveau ba mu am moom da koy am déjà en français ah, ba noppi am am arabe xaw ma ndax xam nga fi may waxee mu donc yooyu ay buntu la ñu war a ubbi kooku benn armée bi militaire gendarmerie douane. concours yi police concours yooyu. diplôme yi bokk ci. arabe boo nekkee arabophone boo déposé ñu teg fee sa diplôme. Hmm? oui ñu teg fee sa diplôme. ah oui. Hmm. parce que parce que lan arabophone nga parce que man du ma baatu arabisant parce que ñun kenn arabisé wuñu ñun nous sommes des sénégalais. yu jàng xam-xam jëfandikoo làkku arab pour jàng xam pour jàng xam-xam mu ngi mel ni nga jël wolof bi rek ku nekk ku nangoo nekk francisant nag yow la tubaab bi def la moom def la français mais ñun jàng arab donc mën nañu tudd ay arabophones mais pas ay arabisant kenn arabisé wuñu loolu benn la kon donc concours yi fi am yépp magistrature bi mm-hmm. ñun dañ fa bëgg a dugg parce ñun dañoo dañoo jàng atte nañ ñu boole ci concours bi ñu def defal ñu formation. mais ce que ni ngeen jàngee àtte du ko diine jàngalee. déedéet dañ koy jàng ni ko diine jàngale ba noppi jàng ko ni ko àdduna bi d' accord ah. boo demee ci dëkku araab yi seen université dañ lay jàngal dafa am lu ñu tuddee euh, sharia wal qaanuun donc dañ lay jàngal benn faculté la benn faculté lay doon sharia bi lan la wax ci àtte yi. ba pare ne la xaanuun canonique bi maanaam wala xaanuunu. Euh, li àdduna bi nangu ne daal li mooy seeni loi aussi nii ak nii ak nii ak nii lay demee loolu moom université yëpp ñoo bokk nu ñu koy jàngale donc ñoom insertion wu diplômé en yi man d'accord naa nañu leen insérer mais buñ leen tëjal benn buntu ci ci ci journalisme moom Sénégal am na ay journaliste yoo xam ne ñi ngi ko jàngee ci arab am pagaay mhm. mais mënuñu nekk fonctionnaire dañoo mujj dem ubbi seen yëfu bopp si la la bokk rahmatullahi alayhi fal euh, fal euh, Fadel Gueye ci la bokk dañoo dem ubbi seen journaux bopp seen i rajo bopp seen i télé bopp pour mën a exprimer pour mën a exprimer wu en en en li ñu pour mën a exercer xam-xam bi nga xam ne dañ ko jàng ci ci làkku arab mm. li ma mm. bëgg a wax ci tënk mooy lépp loo xam ne sénégalais daf ko soxla ci administration les diplômés en langue arabe am nañ ci droit nañ leen ko ubbil bu ñu demee nag wane ak ak médiocrité ñu ñu ñu ñu ñu génn leen mais yow kii defagul dara nga ne ko d'office doo bokk parce que langue te langue bi sax nekkatul barrière parce que ñoom français bi ngay wax ñoom dañ koy wax dañ koy bind plus ñoom ñu am arab boo xam ne yow amoo ko donc kon man daal dama gis ne ñoom lu ñu wax ne jub jubal jubbanti man d'accord naa nañ ko def surtout jubbanti bi mooy arabophone yi nga xam ne dañ leen a beroon nañ leen wan leen war ñu leen a ber dañoo war a bokk parce que li ñëpp jàng la ñu jàng. wala sax de plus. c'est un problème de communication. de communication il faut ñuy wax. pa ñu xam. Mm-hmm. c'est ça. Euh, doyen déjà sax moom daf noonu day dem mais temps bi jeex na presque doyen foofu la ñuy tëjee waaw temps bi des na jeex na doyen euh, li mu wax dëgg la on a un problème de communication dañuy jaawale. Euh, arab arabisant ak arabisant bi ak arabophone may ma balaa doyen di wax ma ma tëj rek pour pour libérer doyen dafa wax sànq Camara bi dafa wax sànq ne. Victor moom Victor. ne université am na ay mesures yu ñu jël pour affaire añ beeg reer beeg ndekki li ba ne sax léeg la gis benn étudiant bu am ñëw lekk benn hamburger du suur mu ñëwaat duggaat li muy coûté état loolu fan laa koy delloo man éthique. dëgg la éthique la parce que liñ ko jàngal mooy. loo mën a def ba sa ba faj sa aajo def ko dagan na. li ci des yoonu. loolu lañ ko jàngal mais am na ñu ko doon doon formé moom mooy yedd boppam ba bu lekk benn hamburger mu yem ca ba ci biir kër gi. mais nag du yomb si si surtout si s'agit des Tukulëër. <laughs> non c'est vrai que euh, débat bi am na solo. mais mm. c'est un débat très très très technique. Mm. très technique à mon avis. Euh, bon c'est bien que ñu waxtaan ci. mais problématique bi mooy euh, état état bi ñu am naka la war a tëddee. Mhm. bon la la question des arabisants premier blocage c'est que ñun notre langue officielle c'est le français donc soo amee diplôme quel que soit le diplôme si tu parles la langue de l'État l'État ne peut pas te recruter mhm. c'est le premier problème euh, donc dafa laaj bon sérieusement une réflexion à mon avis Euh, gis nga je suis d'accord entre guillemets d'accord sur la direction des affaires religieuses c'est-à-dire que dafa war a nekk laboratoire pour le président de la République ça ça doit être une structure de réflexion. Mmh. surtout que présidence lañ ko logé. présidence. on n'a pas de solution à ces questions-là. Mmh. la ministère de des affaires religieuses euh, c'est un gros problème pour mu mën a intégrer un gouvernement à l'état actuel des choses. Mm-hmm. mais par contre la direction des affaires religieuses mën na réfléchir mm-hmm. sur quelle est le, la meilleure approche mm-hmm. pour introduire euh, l'arabe les langues les, les religions tout ce qui est lié à la religion comment que, quelle, quelle étude ben, il n'y a pas de raison on fait une étude sur les salaires mais pourquoi on ne fait pas une étude sur comment comment asseoir euh, la religion dans l'éducation primaire, ah. secondaire, supérieure, dans l'emploi une une structure pour réfléchir pour man il faut que président créer loolu mais pour réfléchir. ok c'est-à-dire mu jaxase nag les les les les arabisants. Mhm. les les experts. Mhm. nga nu c'est c'est pas religieux. Mhm. non pas du tout. c'est pas religieux. c'est <laughs> c'est-à-dire comment refonder le système. donc arabisant bi am na ci mais anglophone bi am na ci francophone bi am na comment réfléchir sur un, un modèle mm. je crois que président dafa war a euh, jël cette dimension la c'est que le président Diomaye il a cinq ans il veut rompre mais rompre avec un modèle qui est là depuis soixante-quinze ans doo yeewu rek nga def ko tout à fait je, pense que pour man il faut que le président mm. accepte que mu nekk une structure euh, de réflexion surtout euh, d'accompagnement mm-hmm. un an deux ans suñu génnee benn projet ba là il faut se dire aussi que y la décision politique président moo koy jël mais il faudra passer par l'Assemblée nationale c'est ça mm-hmm. donc affaire bi vraiment il faut prendre le temps de waaw c'est mm-hmm. compliqué il faut réfléchir merci merci doyen temps bi jeex na Adama Fall Adama merci à dama ko tàmm doyen dama tàmm àddama. donc à lundi incha allah Sénégal. jërëjëf jërëjëf vraiment kontaan nañu trop jërëjëf. yàlla lépp lekk jërëjëf rek. parce que rek moo ñu yëkkati daal. jërëjëf wala Sénégal bu dal Sénégal bu développé. bu ànd prospère. Mmh. merci beaucoup euh, Moustapha Segnane ñuy fàttali rek euh, yaa ngi nekk secrétaire général bu euh, noonu la de ah. est-ce que mën naa lancer benn appel. bien sûr waaw rapidement dire euh, appel bi may lancer le gouvernement laa koy lancer cest dire mm-hmm. man si je suis le coordonnateur national de l'alliance pour la cause palestinienne au Sénégal. ok avec Et le drapeau là avec ah, aussi man maay le coordonnateur coalition des syndicats pour la cause palestinienne. Euh, en Afrique le premier vice-président au niveau mondial. Mm-hmm. donc loolu ay ay mbir la yu ñu ma jox yoo xam ne position bi Sénégal am ci Palestine moo tax ñu jox ma ko ak samay activité ak ñoom. Mm-hmm. donc parce que cause Palestine bi président Léopold Sédar Senghor moo njëkk a taxaw di ko. di ko défendre ambassade Palestine fii Sénégal Senghor moo ko fi indi jox Arafat passeport diplomatique. Mm-hmm. palestiniens yi kontaan ci Sénégal ba mbootaayu xeet yi. ñi nga xam ne ñooy àq ñooy sàmm seen àq ak seen yelleef waa Palestine ñu jox ko si moom Sénégal. Mm. depuis 1976 Sénégal aussi taxaw ci taxawaay bu rafet. Mm-hmm. ba après le 7 octobre. Mm-hmm. Sénégal am beneen taxawaay bu wuuteeg taxawaayu Senghor taxawaayu Abdou Diouf taxawaayu Abdoulaye Wade ak taxawaayu premier mandat wu président Macky Sall. taxawaay boobu mooy da daan taxaw ne Palestine laa àndal dafa war a am état dañ ko war a jox yëfam. loolu nga bëgg ñu delloo si ko. loolu nag ki mujj gi Sénégal dafa mel ne ku bëgg a tëddee njaaxaanaay bëgg yemale Palestine ak occupant yi. loolu vraiment nguur gu bees gi. Mhm. bëgg naa mu delluwaat. ca 76 ca cosaanu Senghor ba. d' accord 76 ba. d' accord voilà vraiment loolu. d' accord merci. jërëjëf Moustapha Tidiane euh, secrétaire général syndicat des enseignants en langue arabe. Euh, mhm. membre du UG7 Victor Sadio Diouf euh, président mouvement MFA di euh, li nga xam di conseil technique euh, au coude. centre des œuvres universitaires de Dakar santaat nañ la gërëm la. waaw merci euh, Siste Maria di wax ne rek aussi euh, di lancer benn appel étudiant rek ci lu ñu jógee. comme ñëpp gis nañu université jafe-jafe yu fi amoon si diggante bi. Mm-hmm. Euh, li tax may wax loolu parce que c'est comme les gouvernements lu ma sànq ci syndicat yi. Mm-hmm. ñoom aussi souvent directeur bu bees bu ñëwee rek dañuy bëgg a ñëw rek. poser ay ay problèmes. te comme ñun ñun les travailleurs ñun nekkuñu ci problème mu perspective directeur bu bees mais perspective bu kër gi. Mm-hmm. mooy li ma chaque jour la ñun ni ñuy liggéey ku manti ñëw sama liggéey la ngay desal liggéey na nga ko daan defee nga koy compter di defee. Mm-hmm. parce que doit être et fidèle loolu la ñu xam ci administration. Mm-hmm. di wax ne étudiants ñu ngi leen di ñaan aussi ñu ñoom ñëpp comme ni ñëpp defee ci élan de solidarité bi ñu ñu ñu ñu bàyyi ci xel euh, ci yenn goo xam li fi xew yëpp ñu buñ ko gisee. war ko tijji du wax ne ak réforme boo gis aussi dina métti au début ñenn ñi aussi parce que ni nga waxee ni am na dina nit am ku ñëw ne la man manuma manuma téléphone mm. wala man def naa sama plateforme am na difficulté mm-hmm. yooyu yëpp mën na ci am mais du tere daal parce que gis nañ Ecobank mm-hmm. euh, bu ñu koy commencé coow yu mu fi indi woon mm-hmm. yàlla fekk nañu résultat pour jot sa njëkk bi ay jaas dañ naan génne université pour ah. sa bourse ngay dem fu la neex lu ci loolu kese lay dem. Mm. mais pour un début réforme boo gis au bi mën na métti mais nit ñi xam ne pour defar la. Mm. pour ñun ñëpp lu ñuy wax sa sax l'étudiant dañ tàmmoo di wax ne suñu credo c'est donc c'est les étudiants qui sont notre corps de métier di wax ne koo gis suñu si travailleurs yi am nga fa doom. wala am nga fa rak am nga fa lépp mooy mm. liggéey bi nga xamante daal li nekk si kër yi moo nekk si biir foofu liñ daal mooy defar ci seen papa yi moo tax ñun ak étudiants yi mënul am xëccoo mënul am réeroo mm-hmm. amul lu dul rek ñu comprendre mm-hmm. pour nit ñi dugg si jàmm man ci génn si jàmm mm-hmm. parce que problème yu bëri yi xew ci réew mi mën naa ne foofu lay soqal ñu jàpp ne nag euh, kon lu mel noonu suñ ci naree def ay réformes yu bees ñu jàpp ne ni ñu commencé woon daaw ak bu ñu tijjee parce que ren si formation am ci accompagnement. ngeen ngeen ngeen liggéeyandoo ci jàmm ak ci def aussi ñi leen représenté dugal nañ leen ci associé nañ ci. dañ koy fekkee ok merci Victor Sadio Diouf merci Moustapha Segnane Adama Fall merci beaucoup doyen Mamadou Sy Albert on vous souhaite un très bon week et merci à la régie la réalisation merci à tout le monde très bon week à tous rendez-vous lundi incha allah 7 TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, 7 TV est au canal 10.